yàlla mu ne sàmmoo leen wattu leen bàyyi leen xel te di ko jëfe julli rawatina julli bu digg doomu bi ban la boroom xam-xam yi werante na ñii ne suba ñii ne subaa ñii ne takkusaan ala kulli soo fonkee waxtu yépp rek boobu dugg na ci biir mbokk yi julli mooy première farata bu suñ borom subhanahu wa taala faratal ci ab jaam ginnaaw bi mu waxee baati seede yi moo tax nit ki bu fonkee julli fonk niñ koy defee yont bi nee na suñ borom garanti na la ajjana nañ bàyyi xel ne yàlla bi muy wax yonent bi julli di nañ woor dafa yónni jibril jibril ñëw ne yonent bi yàlla nee na farataal na ci julli di julli bi muy joxe azaka noonu la woor noonu la dem màkka noonu la waaye julli sëriñ Daawda julli yàlla dafa jël yonent bi ràññaane ko mu jëm ca asamaan mu door ko wax ne jox naa la julli kon lu yàlla fonk la amul intermédiaire directement yàlla ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax mbokk yi lu ñu war a fonk la def ko ni ñu ko war a defee suñ ko defee rek daal di tudd ay jullit xàqan moo tax boo demee ci saxiixul Buxaari dangay fekk yonent bi sallallahu alayhi wa abi hurayrata mu ngi nettali ne amul kenn koo xamee ne fonk na waxti jullam amul kenn koo xamee ne bala muy julli laab na lu dul suñ borom subhanahu wa taala daal dina koy préparel ajjana mbokk yi góor yi mbokk yi jigéen yi seytaane musul dañ di taxaw diggante ak jaan bi pour mu bañ a julli comme li ñuy dal ñun immigré yi da ngay wàcc ñëw ci kër gi au nga julli nga mel ni Cheikh Omar Sarr nga dem ji ñëw xaar reer bi soo reere ba pare naan ataaya soo paree xool journal bëgg a méntu nag bëgg a taxaw pour julli baaxul julli dañ ko war a fonk moo tax dafa war ci ab jullit wareef la fonk julli sàmmoowante ak moom ci lan ci lab bi ci farata yi ci sunna yi ñun ñëpp bi ñu fiy ñëw kenn xamuloon Europe bu dul suñu njaboot gi fi juddoo ñun ñëpp euro bi daf ñoo dab amul kenn ku ñuy nax ci euro bi kenn amul kenn kuñ ciy nax kon nañ góor góorlu ba niñ mën a suñu àddina ñu téewee ko tam suñu àllaaxira mooy lan mooy ñu fonk julli moo tax yonent bi nee na ku say julli baax sa lépp baax na waaye ku say julli bon sa lépp daal dinay daal dinay bon gis bari bëri yowmal xiyaamati bu ñu yeggee ñu peese seeni jëf gis na julli baaxul yàlla dafay wax malaaka yi bu leen sonn di xool woor bu leen sonn di xool azaka bu leen xool ay umraam bu leen xool ay dem màkkam bu leen xool dara bu julli baaxul dara baaxul ci samay waxtaan yu bari damay faral di expliquer ne su fekkee nit ki dafa yore permesso di soggiorno mu valable mu yor passeport am mu valable mu dem aéroport pour ñibbi ci Sénégal ñu teg bagage yi fekk drogue ci biir séjour bu baax ak passeport bu baax mënula la cee génne julli noonu la mel su woor bi baaxee azaka bi baax dem màkk yi bëri te julli baaxul yàlla dafa naan buleen leen xool yële ndax kër gi dafa amul fondement xam ngeen ne julli lu rëy la indama dikki naa mboolem ibaadallahi julli bopp dëgg gënul سير عادي عبد العظيم مالك نيرة رضي الله تعالى عنه خم جن كل لورين دقلة عند مالكنا مبولم عباد الله jullee booba dokk gënul ak bopp kay bu dogee ci jëmm ab dund dootu fa des fab leen te ci des yal nan ci yàlla musal radiyallahu taala anhu xam ngeen ni julli lu rëy la maam waaw inda malikina guru saadiya waaw boole ibaadallaahi jullee bopp gënul ak bopp kay ci dogee ci jëm ab dund dootu fa am leen te ci yas yàlla na ci yàlla musal المصطفى إن صلاة وملوكا آخر ما زال المصطفى في حال شيخ سيد الحاج مالك وسليا يا إلهي وجزيلا المختار في الخدام إن الصلاة مملوك الأخير ما به المصطفى على شيخ سيدي الحاج مالك وصلي يا إلهي وجزيا حبيبي محمدنا المختار في الخير إن الصلاة ومالكنا آخر ما به المصطفى في على شيخ سيد الحي وسلي يا إلهي

jërëjëf loolu mooy julli ba yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne fa waylun lil musallin allazina hum an salaatihim saahuun yàlla dafa wax ne am na benn quartier bu nekk ci safara ñi nga xamee ne dañuy sàggane julli ñooñu ñoo fay dem sàggane julli nag ibnu abbas radiallahu anhu dafa wax ni mooy ñi nga xamee ne bu waxtu wi jotee au lieu ñu julli dañuy toog nekk ci facebook bi nekk ci whatsapp bi nekk ci seeni soxlay àddina di wax ne waxtu wi des na waxtu wi des na ba waxtu wi passé nee na ñooñu la wax ne ñoom ñoo sàggane julli ndax ki nga xame ne moom julliwul kooku beneen affaire la leneen moo ko topp waaye ki koy sàggane mooy kii wax ne mu ngi ci ba pare daal di nekk ci leneen euh, mbokk yi sëñ Duudu xam naa fi may dugg directement mooy damay wax julli lan mooy charte yi nga xame ne nit bu ci nekkee na xam ne am na charte yu wér pour julli bu ko amul na ko wóor ne li muy def li muy def baaxul ba ci njëkk mooy mu laab ci xadas laabit ci xabas laab ci xadas ak laab ci xabas mooy kii am na janaba faw dafa war a sangu bu sanguwul bëgg julli julleem baaxul kii njàppam dafa toj mu war a jàpp ji te ndox am na su ko deful moom it amul julli beneen bi mooy nit ki day suturaal awraam bu bëggee julli bu fekkee nit ki dafa def mu neen bëgg a julli julleem baaxul nit dafay sol yére yu jot pour mën a julli foofu nag mu am benn muskila bu tuuti sew sew bu ci nekk alaji fari jigéen buy julli testanam feeñ ci biir julleem julleem yàqu na moo tax suñ demee ci nit ñu weex ñi bu ñuy julli li ëpp dañuy sol kawas wala ñu am yére bu julli tenue nga xam ne dafay wàcc ba ci suuf ba muy sujuutee kenn du ji seen tànk waaye jigéen julli ki nekk ci ginnaawam seen tànkam julleem yàqu na julli jooju baaxul daf koy julli jiwaat wala ñu sol yére boo xamee ne loxo yi jotul ba fii nga xamee ne fa lañuy takk montre walla takku njara su fekkee ba foofu julli euh, matul moom it julleem baaxul kon loolu lu nit war a bàyyi xel la beneen bi mooy jublu xibla soo wanee xibla bi ginnaaw par exemple fi ñu nekk nii ci zaawiya bi xibla bi sama càmmooñ la nii su fekkee ne doomi aadama bi dafa jublu xarfu wala mu jublu sowu su boobaa julleem baaxul ñeent yi boo ci dollee waxtu julli bi jot muy juróom yi yi mooy charte yi nga xamee ni ku ko bàyyi sa julli baaxul su ma koy répété damay wax laab ci xadas laab ci xabas mooy ki war a jàpp ki war a sangu ki war a tiim yii boo ci paree suturaal sa awra jublu xibla ak it nga bàyyi ba waxtu wi dugg nga daal di julli yii mooy charte yi julli juróom la bëriwul ma ñëw ci faratay julli nga xam ne benn boo ci bàyyi te tey ko sa julli yàqu na faratay julli sëñ duudu bi ci njëkk mooy yéene te subaar jot nga yéene tàkkusaan amoo julli tàkkusaan jot nga yéene timis amoo julli timis jot nga yéene suba amoo julli waxtu wu jot da koy yéeneel waxtoom nga julli ko yéene nag bu demee ca Sénégal garaasu Cheikh Omar Sarr yi dañuy taxaw jàkkaarloo xibla ne maa ngi yéene jullitu subaar bisu samedi ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru janvier déedéet yéene ci xol la bi waxtu wi jotee nga fas ko préparer pour jóg rek julli jot na su boobaa am nga yéene bi yéene kon bu baaxul mooy sa julli baaxul mooy intention en français ban ma ci topp mooy takbiratul ihraam yi ekkati say ñaari loxo ba mu say nopp wala ba mu tolloog say wagg nga wax allahu akbar mooy bu njëkk bi farata la ku ko bàyyi amuloo julli ekkati say loxo ba mu tolloog say nopp wala mu tollook say mbagg nga ne allahu akbar boobu farata la ku ko bàyyi rek amuloo julli yeneen yi ci topp yépp nag du farata waaye bii boo ko bàyyee amuloo julli julli rek kon yéene ak allahu akbar bii dugal nit ci julli ku ko bàyyi sa julli yàqu na da ngay julliwaat kenn mënu ko réparer bi ci topp mooy taxaw bi nit ki di taxaw di wax allahu akbar ci ku kuy taxaw di julli nit ki bu dee ku wér la di taxaw di julli mënul toog ne allahu akbar jóg taxaw pour julli julleem day yàqu parce dafa bàyyi farata su fekkee kuy toog la di julli toog bi muy toog di ekkati loxoom di wax allahu akbar toog boobu faratala ci moom bu dee kuy tëdd di julli tëdd bi mu tëdd ekkati ay loxoom ne allahu akbar farata la ci moom bu soo ko bàyyee sa julli dafay yàqu te wax naan léegi ne julli bu baaxul yowmal xiyaam yàlla du xool saraxe du xool dox mbokk du xool euh, woor du xool aj du xool dara bu baaxul rek nit ki directement ci safaan lay dem yàlla nañu si yàlla musal bi ci topp mooy jàng fatiha yenn saa yi nga dégg lenn ci sama mbokk yi ne fatiha bu sell fatiha bu sell ak bu sellul amul fatiha bu wér rek la wala bu yàqu day baax wala mu bon bismillahi rahmani rahim bu la neexee nga wax ko ci kaw bu la neexee nga wax ko ci suuf moo tax yenn saa yi ngay dégg nit di jàng di julli nga dégg mu ne bismillahi rahmaani rahim alhamdulilahi rabbil alamin baax na yenn saa nit di la jiite nga dégg mu commencé ci alhamdulilahi rabbil baax na bismillahi rahmaani rahim mi def ko yeelu alhamdulilahi rabbil alamin arrahmaani rahim maliki yawmi diin wala maliki yawmi diini bu ci nit wax baax iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina sirata almustaqim sirata allazina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin amin fatiha ngokk soo ko nit ki bàyyee ci julli julleem yàqu na nga mel ni sëriñ sekk tëb iyaaka naabudu wala nga tëb iyaaka nastainu sa julli baaxul waaye mën ngaa réparé wat rakk boobu waaye rakk boobu moom yàqu na ndax li nga tëb benn aaya fatiha aaya boo ci tëb rek rakk boobu yàqu na wala julli jooju yàqu na waaye bu dee saar bi topp ci fatiha wala aaya bi boo tëbee wala nga jaxase wala nga dugg fii génn duggaat feneen ba tey baax na dara nekku ci taxaw bii nit ki di taxaw di jàng faatiha farata la nga toog jàng faatiha jóg taxaw bëgg yeggali sa julli sa julli yàqu na ndax taxaw bi ngay taxaw pour jàng faatiha farata la lan moo ci topp mooy rukkoo jël say loxo tee ko ci sa bëtu oom daal di sëgg daal di yemoo loolu farata la ci julli soo ko bàyyee sa julli dafay yàqu loolu la ñuy wax record su ko nit ki di bàyyi rekk julleem dafay dal di yàqu boo rukooree ba pare jóg bi ngay jóg ba ne xojju taxaw comme ni nga doon jàngee fatiha farata la moo tax boo melee ni farindoom sëgg bala nga fay yem sijjiwaat balaa ngay taxaw dem sujutiwaat sa julli yàqu na la hawla wala xawata kuy jullee noonu na xam ne amul benn julli bu baax suñu baay xaaji bi si yal yàlla guddal fan bi may ko di kenn ci suñu kilifa yi moom la maam Abdoul Aziz Dabakh wax ne ko samp naa la mu nekk fi ci ndigal kon buñ ko séenee faw ñu arrêté liñ doon wax donte que ne farata la yàlla nañu ko yàlla sàmmal yàlla nañu ko yàlla waaw hmm. الله أنا إله تهمي بالمزايا ويا ويمانا إله تهمي بالمزايا ويا ويمانا إله تهمي jërëjëf bay hulma way sheikh way mana ila hulma zaya خليفة يا عيد فجاي من الوالي وزاره لبيه لبيه لبيه سيد الحال فيه جدواه مسجد العالي صالح فيه جدواه مسجد العالي صالح فيه جدواه يا مسجد الحال فيه جدواه مسجد العالي صالح فيه جدواه سيدنا جبال سيدنا جبال سيد العابدين سيد جدواه إمام كرسي جنان الله في جدواه إمام كرسي جنان الله في جدواه إمام كرسي جنان الله في جدواه إمام كرسي جنان الله في جدواه إمام كرسي جنان Everybody بخير تخاي بابا كرسي جلنا نبلا يا جربي من خليفة بابا كرسي جلنا نبلا يا خليفة بابا كرسي جلنا نبلا يا خليفة بابا كرسي جلنا نبلا سمي سمي بابا كرسي جلنا kursi jël na dawla kursi jël na dawla Baba Kursi Jalna Namaste

داري من داري ومسكني بعلى داري على داري عن داري يعني أربعون خلزات العطر خلزات العطر نمرتي سير حجك وكبرت المدد انت المدد انت المدد خلفها مكوسي جلنا خلفها مكوسي جلنا نمل يدفع دنيانا رام خلفها مكوسي جلنا نمل يدفع دنيانا رام خلفها مكوسي جلنا نمل يدفع دنيانا رام خلفها مكوسي جلنا li fa may li fi nekkoon man xalifa abaa kirisi jaynaana waral xilaafati nekkoon man xalifa abaa kirisi jaynaana way fii jilwaawe abaa kirisi jaynaana way fii jilwaawe adinay def jëndal réew mi demal ci yow mbaa nga soobu ci dëgg sax sax xarul leer maam xalifa hada kursi jël naa la wa inni xad kuntu min ahlin daari ahlin daari wa maskani bi ala daar ya daari ya daari la la bawna kulli zakala kulli zakala والبيادين ايه فلبا

أوهام يوما يوما إلى العلا يكون يكون إماما إماما الورى الورى والورى والورى محمد زوجه فالما العاجم بسوء بايز زوجه فالما والما يعلين زوجه فالما والما يعلين فلما عرفت الورى شرخا شرخا وغربا كمثل فتى المنزول في سائل الورى دفخوا إذا صاغ الأخوان يوما يوما إلى العلا يكون يكون إماما إماما في الورى والورى والورى والورى محمد يسكن فالبايع والبايع أنه فالبايا والباياتين أما عبد العزيز دبخ ديسو جافي جدواه زلمي ورسولة لنخلي جراه يفي جدواه يفي جدواه وخلين فاف سنبي منصور يالنا في عدتين cat waay waay mbay xam naa maa ngi jéggaluwaat ci dogdog yi suñu kilifa yi suñu bàyyi suñu nijaay yi suñu imaam yi suñu jëwrin yi bu ñu ñëwee faw ñu def benn dog-dog mën leen a dalal accueillir leen ndax ku mel ni xaaji Birane si ku mel ni imaam Khadim Touré ku mel ni oustaz Dame Sey ku mel ni ku mel ni ku mel ni bu ñu leen amee Bergamo buñ leen gisee lépp lu ñuy def dañ ko war a arrêté pour accueillir leen ndax bu dul woon ak ñoom Bergamo du tàkk ba mel nii kon imam papa jërëjëf yàlla na yàlla fay leen xam naa ñu dalal waa Libon jox leen kàddu ñu présenté seen produits produit suñu paree ñu delluwaat ci waxtaan wi ñu nekkoon ndax ci julli lañ doon waxtaan bu conférence boobu jeexee dinañ jox kàddu ñu waxtaan ci quinze vingt minutes ndax ki ñu dippee lii di ko ci delloo njukkal mooy tafsir Moustapha Thiam den jox ñu waxtaan ci moom suñ paree den wax ci parrain yi suñ pare nag ñu gàmmu wax ci yonente bi ci màkka ba ci gàddaay gi ñu tëj ko foofu ba déwén incha allah bisimilah. salaamaaleykum ñu ngi nuyu mboolam yëpp ñi fi teew tey di commencé ci nuyoo bi di ci sant bu baax imaam ci invité bi ñuy invité ñu ñëw fi représenté Libone di nuyu aussi kilifa yi fi teew yëpp kenn ku nekk sa tur ak sa sant donc comme niñ koy faral di waxee rek daje yu mel nii euh, dañuy dem ci daje yu bëri waaye dañuy dañuy kontaan lool ñëw ci daje yu mel nii nga xam day day fa nekk ay daje diine yoo xam ni kenn ku nekk soo fi jugee di nga am loo ci dolli ak sa muy lu am solo donc tey euh, suñu fi teewee dañu ñëw pour euh, xamal nit ñi lan mooy Libon nga xam ni soo deful ndànk ñu bëri sax ci saal bi jot nañ ko xam waaw ndax léegi sénégalais yu bëri jot nañ koo xam mu nekk benn application boo xam ni euh, da nga ciy mën a woote Sénégal di woote appel normal koo xam ni maanaam amul connexion wala euh, connexion am doxul donc da nga mën a woo appel normal ci loo xam ne lu yomb lay doon ndax soo amee cinq euros crédit day doon cinquante cinq ba 60 minutes vers Sénégal voilà donc di nga ci mën a woote te soo ko chargé sa téléphone tant que utiliser woo ko crédit bu du expiré donc mën nga ko utiliser heure bu mu la neexee te tant que woote woo duñ ko jël Euh, te ni koy mën a recharger lu yomb la ndax mën nga utiliser sa carte postpay pour charger ko mën nga aussi dem ci tabaka yëpp Italie dañ koy jaay ñiy def envoi d'argent aussi muy yi ñoom ñëpp dañ koy jaay donc application pour télécharger ko yomb na soo amee Android wala nga am iPhone mën nga ko télécharger donc euh, loolu la ñu woon dañ leen ko leeral tuuti rek pour bañ a guddal donc ñun ñu ngi fii ba ba guddi gi di jeex donc képp koo xam ni jotoo am ñun soo ñëwee dinañ la ko may ci gratuitement may la 10 minutes boo xam di nga ko mën a utiliser pour woote Sénégal wala àdduna bi yëpp fu la neex ñu may la aussi crédit nga mën ko envoyé ku nekk Sénégal luy toll ci euh, valeur 1 euro donc bëriwul mais c'est juste pour wan ko nit yi pour wan leen naka lay naka lay doxe waaw donc loolu la ñuy wan lañ leen ko yeggee su ko defee euh, njëriñ la pour ñi nga xam ne dañ koy soxla parce que am na ñoo xam dañuy utiliser crédit bu bëri ci yeneen ci yeneen opérateur te su boobaa dafay dafay metti ci ci ñoom waa jërëjëf. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala suñu mag suñu kilifa baay si tuuru al imam oustaz Abdou Sayer fondation El Hadj Moustapha ñoom ñoo la jox diplôme d'honneur di ko jox waa Liban euh, si liggéey bi ak ci publicité bu sell bi nga xam ne def ngeen ko mais ak njëriñ gi nga xam ne tamit moom la àndal kon euh, lii lañ leen jox ci turu fondation bi su suñu bàyyi suñu kilifa El Hadj Moustapha radiallahu taala anhu wante ci ndigalu famille bi lii de moom ñu ngi ciy bu baax a baax a baax dañoo sax jële kaw day dañuy gën a ñaax rek ci suñu liggéey su ko defee ñu gën a di ci góor góorlu bu baax di fexe tamit ba lépp li nga xam ni suñu mbokk sénégalais yi dañ koy def lépp luñ ci mën ak luñ ci mënul ñu gën cee góor góor di ñëw di ci jàpp su ko defee événement yi di gën a yomb ci ñoom ndax euh, organiser événement yi mel nii yombul wa dëgg yàlla lii moom euh, xaaruñu ko woon jëlee nañu kaw lool donc ñu ngi leen sant bu baax a baax imam di ñaan aussi collaboration suñu borom gën yu cee dëgëral ñu ñëpp ba kenn ku ci nekk gën cee mën a gis boppam bu soobee yàlla. te xam naan dootuñu ko mus a euh, euh, euh, na xaw ma nan lañ koy waxee maanaam duñ ko mus a wóoteeti bu soobee yàlla waa kontaan nañ loolu lii de wax dëgg yàlla fee maanaam doy na waar daal <laughs> ñuy sàkku rek ñi nga xam ne dañu ànd ak ay tuut tànk ñu téye leen euh, ngir mun a teylu ndax li ñuy faral di wax rek ñëw si jotaay bu mel nii ay kilifa yu sell nekk fi ñu war fee jële xam-xam te moytu fee jële bàkkaar ndax su fekkee ne kilifa yaa ngi wax te teyluwuñu ko te li ñuy wax génnul alquran ak sunna dafa mel ni ñu ngi déglu alquran te ñu laneen li nga xam ne moom la ñu santaane kon ñu ngi sàkku si yéen kenn ku si nekk di jéggalu nag mais ñu téye ndaw ñi ñu wàcce baat yi ngir mun a teylu li nga xam ne moom la euh, ustaas yi di dénkaane salaamaaleykum wa rahmatullah jërëjëf xam naa ñu tënk lu tuuti rek di yëgalaale ñëpp rek benn publicité mooy soppey Oustaz Alioune Sall ñoom ñooy def conférence samedi 17 février 2024 jëmm ju xeebu ji oustaz Abdou Sayer Gueye moom lañ def mu nekk parrain bi maa ngi ñaan nag yéen ñëpp invité naa leen ñu ànd ci bis bu rëy boobu gungee ma ci ñu ànd ak oustaz Alioune Sall def conférence bi Brescia lañ koy defee le 17 février maa ngi doon wax julli nekkoon ci farata yi ma wax ne benn farata ci farata julli yi soo ko bàyyee sa julli dafay daldi yàqu am na ci yoo xamee ne maa ngi koy expliquer doomi aadama bi mën na ko réparer waat ci biir julli ji bu dee lim def tayu ko waxoon bi ci njëkk mooy yéene yéene ci xol lañ koy fas duñ ko tudd ci làmmiñ boo waree julli tisbaar nga yéene tàkkusaan sa julli yàqu na julli bu nekk waxtu wu ne waxtu woowu nga yéene nga julli waxtu woowu deuxième ponk bi ndax ci ngëru imam Malik faratey julli fukk la ak juróom benn lu tax mooy fukk ak juróom lañu konte waaye xalil ci biir ngër mi la bokk mu yokk ci benn te boobu mooy ki ñu jiite roy bi muy roy ki ko jiite fukk ak juróom benn yëpp dinaa la ko àndil li tax wax naa ko ci commencement bi mooy dama bëgg ku ñëw ci sama waxtaan sooy ñibbi yóbbuwale dara te julli dañ ko néewal doole te yàlla nee na julli bu baaxul du xool aj ak lu mu bari bari du xool woor ak lu mu bari bari du xool azaka ak lu mu bari bari kon julli dafa war a baax te bu julli baaxee yàlla nee na du xoolaat ya ca des damay xam ne yëpp baax na rek da ngay dugg àjjana kon waay waay na baax benn bëñ ci gémmiñ dafa war a weex kon ginnaaw yéene deuxième bi mooy kabbaru xarmal mooy première allahu akbar bi nit ki di wax pour dugg ci julli su ko bàyyee julleem yàqu na kenn mënu ko réparer su ko tayee mu ngi fo su ko tayul day julliwaat bu ko tayee nag mu ngi fo te jàkkaarloo ku toll ni suñ borom di fo dëgg-dëgg yàlla ñu ci yàlla musal troisième bi mooy taxaw bi ngay taxaw pour wax allahu akbar soo melee nii sëriñ sekk wala sëriñ Jaw toog ci sa lal wala nga toog ci sa siège wax allahu akbar ba pare jóg pour julli li ci des sa julli yàqu na parce que kii mën a taxaw taxaw bi muy taxaw pour wax allahu akbar farata la kii di toog ci chaise di julli toog bi muy toog ci chaise di wax allahu akbar farata la kii tëdd bi muy tëdd pour wax akbar farata la mooy Renault Scenic du noonu domodossala Torino Washington Firenze ñu ne fi mu gaaree na puus parce que dafa am ku bëgg a génn DT 082 wala 082 WF Renault la bu gri ci buntu kàncelo bi la gaare kon troisième bi mooy taxaw bi ngay taxaw pour jàng pour wax allahu akbar quatrième bi ci farata yi mooy jàng fatiha jàng fatiha bàyyil xel ne yow mi ñu jiite dangay ngay jàng fatiha imaam bi nekkul imaam bi rek mooy jàng fatiha imaam day jàng fatiha waaye ki ñu jiite tam dafay jàng fatiha booy jàng fatiha nga am ilimaan boo xamee ne dafa mel ni Mouhamed Gueye mii làmmiñ bi dafa gaaw mu jiitu la ci fatihaam ba jàng euh, qul huwa allahu ahadam te yow pareegoo sa fatiha bu rukuuce topp ko ci rukuuc bi daggal sa fatiha te topp ko ci rukuuc bi ndax yonent bi moo wax ne xiraatul imaami xiraatukum jàng bi imam bi di jàng daf laa yóbbuwaale waaye nag yóbbuwaale wala ba yow doo wax dangay ngay jàng ndax topp imaam bi farata la taxaw bi ngay taxaw di jàng fatiha farata la boo toogee jàng fatiha ba pare jóg taxaw eggali sa julli sa julli yàqu na bi ci topp mooy rukon mooy sixième bi jël say loxo ñaari loxo teg ko ci sa bëtiwoom woom sëgg ba yemoo loolu farata la ci julli boo sëggee te yemoo woo sa julli yàqu na rukon boo ko bàyyee sa julli dafay yàqu su fekkee ne da nga koo fàtte au lieu nga rukkoo nga fàtte ko dem sujuuti rakka boobu moom mooy yàqu da ngay tourné waat bàyyi rakka boobu commencé waat ci rakk bu bees masalan ku mel ni farindoom mu ngi julli mu ne allahu akbar jàng fatiha jàng euh, saaram au lieu mu rukkoo mu dem sujuuti directement fàttaliku ne moom rukool day continuer sujuutam su paree mu jóg taxaw waaye rakk bu njëkk bi baaxatul rakk bi muy nekk deuxième bi mooy doon premier rakkaam su paree ci ngeeru imam malik mu sujud baada salaam parce que dafa yokk ci julli ji sujud baada salaam mooy lan mooy nit ki bi mu taayaa ba ne asalaamu aleykum mu sujutaat yeneen ñaari sujud bu ko neexee mu taaya bu ko neexee mu bañ a taaya wax asalaamu aleykum baada moo arab la buy signifie après qabla moo arab la buy fi avant kon salaam mooy sëlman qabla salaam avant ngay wax asalaamu aleykum baada salaam après boo waxee asalaamaaleykum soo ko ràññeewul xamoo xabla xamoo baada su dee góor nga demal xooli oustaz daam Sey mu jàngal la ko bu dee jigéen nga seetil Zeyda Wudi Diagne mu jàngal la ko en daa nga koy mokkal bu ci root sonnal sa bopp julli yépp boo juumee defal baada salaam boo sëlmalee ba pare waxal asalaamualeykum boo pare nga sujur sa ñaari sujur waxal asalaamualeykum ba kere nga koy mokkal ci ngeru imam malik bu dee ngér boobu nga topp kon bi ci topp mooy jóg bi ngay jóg ci rukon boo rukonee ba pare amoo droit dem directement sujud da ngay siggiwaat ba taxaw ne xojju taxaw ba ku la séen xam ne ku taxaw laa seen ba ku lay photo day photo nit ku taxaw su boobaa siggi nga ci rukon waaye boo fekkee da ngaa suj euh, gaawantu siggi yeggut ci taxaw nga rukkoo nga dem sujuuti sa julli yàqu na julli duñ ko gaawantu soo demee ci masaalikul jinaan sëñ tubaa da cee bind bunt bu yaatoo yaatu ndax lan am solo gim am solo kon bi ci toppaat muy juróom-ñetteel bi mooy sujuut jëbi bakkan bi ñaari ténq yi ñaari bëti oom yi ñaari cati euh, euh, tànk yi baaraam yi yépp ci suuf lay nekk waaye boo bëggee def ni sëriñ Seck wala sëriñ Jaw te duudu bokk ci nga jël feuille wala nga jël dara wala kaala gi teg ko ci suuf su jur si dëgg-dëgg def nga lu ñu sib yonent bi nee na jaam bi fi mu gënee jege boromam mooy bi mu sujuutee moo tax yonent bi ne ñaan fa ñaan gu la neex ñaan fa ba ñaan fa xorom bi nga xamee ne dañ koy xoromee ci kër gi lenn lañ fay tere mooy jàng fa alquran te bu dee alquran bi ngay jàng ñaan nga ci jublu dagan na rabbana atina fi dunia xasana wa fi l la waaye boo sujutee nga ñaan ko jubli ci ñaan dagan na ginnaaw sujuut bi li ci topp mooy toog bi ngay toog diggante ñaari sujuut yi waaye nga sujuut bala ngay toog delluwaat sujut sa julli yàqu na boo ci dëkkee amoo julli te boo amul julli yowmal xiyaam boo demee bu àndul la ngërëmul suñ borom mën na am safaan bi ci topp mooy sëlmal assalaamu aleykum julli ba pare ne salaamaaleykum sa julli yàqu na asalaamu aleykum italien bi gën a jafe fuuf te ñun ci faj suñu soxla surtout nag ci bonis yi ñëpp a ciy faj seen soxla kon nañ fexe julli mettiwul ñu respecté ko te jàng ko kon asalaamu aleykum toog bii nit toog di wax asalaamu aleykum mooy fukkeel ak benn ci faratay su ko nit ki deful julleem yàqu na nga julli taaye ba pare jóg taxaw ne asalaamu aleykum sa julli yàqu na nga fàtte ko dem sa julli yàqu na nga tey ko yaa ngi fo fukkeel bi ak ñaar mooy gën a jafe ak ci ak fukkeel bi ñett mooy dal ak yemoo ci julli moo gën a jafe ci julli bëri na ku julleem yàqu ñàkk am dal ak ñàkk a teey moo ko yóbboo yaa ngi jàng faatiha yaa ngi njëkkalante ak heure bi nga gaawantu ba yàqu ko yaa ngi rukon di njëkkantale ak mensa bi nga yàqu ko soo rukonee téye sa loxo sa ñaari bëti om rukon ku foto day am nit ku rukon nga siggi dañu war a am nit ku taxaw nga sujjuut dañoo war a am nit ku sujjuut nga siggi ci sujjuut dañu war a am nit ku toog waaye bu dee dañu ne dañuy foto nit ki te mënuñoo fexe ba jël ci moom benn pause ci li muy def julleem yàqu na li il mu am dal ci julli teey ci julli bi ci topp mooy fukkeel bi ak ñeent toftale farata yi amuloo droit sujud rukon jàng fatiha li nga am droit mooy wax allahu akbar jàng fatiha taxaw bi nga koy jàng bu dee kuy julli taxaw la rukon sigi ci rukon sujud boo leen inversé sa julli yàqu na maa ngi insister bu dee yaa tey dangay foo kon fukkeel bi ak juróom mooy topp bi nga xamee ne ki ñu jiite te mu tudd almamuun mu ngi koy topp imaamam farata la waaye sa imaam rukon nga taxaw di jàng mu dem ba sujud yow ngay door a mu siggi ci sujud yow ngay door dem sujud sa julli yàqu na imam dañ koy topp ci li muy def bu dee kii jiite neexu la doyu la comme imaam julli sa sa julli bopp kon wax naa ne ci ngëru imaam Malik faratey julli fukk la ak ñeent quatorze la quinzième bi xalil moo ko ci dolli mooy topp bi nga xamee ne yéene bi imaam euh, ki ñu jiite di yéene pour topp imaamam fi may tëjee mooy ci lu gaaw muy sunnay julli nga xam ne boo leen bàyyee benn sa julli yàquwul doo ko sujjuutal nga bàyyi lu ëpp loolu da koy sujuutal xabla salaam wala baada salaam pour réparer li nga defoon farata yi ma tudd nag yépp comme ni ma ko waxee sànq bu dul asalaamu aleykum ak allahu akbar bi ngay duggee ci julli yépp mën nañ ko réparer bu dee nit ki tayu ko su dee nit ki tayu ko kon sunnay julli liqaam ci sunna yi la saar bi ngay jàng wala aay bi ngay jàng ginnaaw bi nga jàngee fatiha sunna la taxaw bi ngay taxaw walla toog bi ngay toog wala tëdd bi ngay tëdd pour jàng ko sunna la soo waree yeelu nga yeelu sunna la boo waree biral nga biral sunna la timis dañ koy biral tisbaar dañ koy yeelu sunna la bépp kabbar boo wax ci biir julli allahu akbar boo wax te bokkul ak allahu akbar bii tijji julli sunna la nga rukoo di siggi sami allahu liman hamida sunna la toog taaya sunna la toog bi ngay toog taaya sunna la toog bi ngay toog di la li may wax yépp nag ngeru imam malik laay wax bu kenn dem xooli ji beneen téere parce am na ci yeneen téere yi ñoo xamee ne taaya farata la ci ñoom nga dem jàngi ko wala nga dégg ko nga ne oustaz man ngeru imam Malik laay wax kon taaya ak toog taaya sunna la jiital bi ngay jiital fatiha doora jàng saar sunna la julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy salaatul ibrahimiya sunna la boo sëlmalee asalaamualeykum sa ndeyjoor asalaamualeykum sa càmmooy càmmooy bi sunna la wax asalaamualeykum ca kaw sunna la déglu bi nga xamee ne nag bi nga jàngee fatiha ba pare yaa ngi déglu sa imaam bu dee ci julli biréel la loolu sunna la ngay julli te mooy 17e bi parce que sunna yi ci ngëru imam malik 17 la ngay julli ragal fi ngay jullee am ku jaar sa kanam nga jël dara teg fa waxuñ nag comme ni nga xamee ne ñu bëri noonu la def jël benn portable rek wala tolloog portable teg ci kanam déedéet li ngay jël lu mu tuuti tuuti war naa nekk demi mètre ci gudd war na ko nekk lu mu sew sew sew flèche ni muy sewee war na ko ëpp tuuti nga teg ko sa kanam kuy romb xam ne kii dafay julli waaye di julli ci kanamu nit ñi koy romb nga fotosu wala nga tàpp pour mu xam ne sa julli yàqu na parce que yaa ngi foo parce que waroon ngaa xam ne booy julli da nga war a teg dara sa kanam boo ragalee am ku la romb soo demee ci réewu naar yi fu mel ni makkatal mukarrama wala fu mel ni a wara da ngay gis dañuy dañuy yett ay bant spécial pour loolu teg ko ci biir jumaa ji booy julli nga jël ko teg ko sa kanam su ma ne màkkatal mukarama nag waxuma ci biir kaaba gi waxuma ci xorom bi ci jumaa yi nekk ci alentour bi wala jàkk yi laa wax parce que biir xorum bi amul loolu ndax nit mën nay julli kii wër kaaba gi di ko romb kii wër kaaba gi am na wër kaaba kii julli julleem baax na ngay julli jigéen jaar ci sa kanam bu dee fii la sa julli yàqu na mais bu dee ca Kaaba ga la dagan na parce que foofu mënuñu séparer ngay julli dendoog sa soxna ngeen ànd di julli dagan na ci Kaaba gi moo tax ñi demagul nañ préparer pour dem ci loolu maa ngi profité te foofu lay tëjee di wax ne incha allahu taala association maam Dabakh Hajj et Umra day organiser umra yu bëri ci biir at mi waaye spécialement weeru koor nga xam ne man maa koy jiite ak Cheikh Omar Sarr euh, ak euh, mois de décembre am na ay flyer yoo xam ne ñu ngi koy ñu ngi koy distribuer ci biir moo nekk nii numéro téléphone yaa ngi fi ku ma woo dinaa ko jox information bu leer euh, ak yeneen numéro yi ci nekk du 24 décembre 2024 au 4 janvier 2025 incha allahu taala maa ngi nuyoo tey gërëm di ñaan suñu borom subhanahu wa taala ñun ñëpp yàlla nañu boole defal jàmm boole ñu sàmm boole ñu taxawu boole ñu aar zahiran wa batinan ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu bàyyi gars yi ñeen zikkar quelques minutes ñu dugal suñu avocat bi mu présenté wu wax lu muy def euh, ñu yeewi ko mu ñibbi ñu door a gàmmoo nag وجزينا ابدا عنا محمد مختار في الخدام سيدي وصليا يا الهي وجزينا ابدا عنا محمد مختار في الخدام من الأمم سيدي وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدا المختار في الخدم من الأمم محمد وصليا يا إلهي وجزينا أبدا على محمد المختار في الخدمة ñu ngi àndal ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm ñu waat euh, mbooloo mi euh, tey oustaz daf ñu àndil loo xam ne daf ñuy dimbaliwaat muy innovation ñu ngi sàkku teylu tuuti rek ngeen baal ñu ñu ngi sàkku teylu oustaz daf ñu fi àndil suñu mbokku avocat ndax ci conférence yi naam alquran ak sunna la ñuy dénkaane te alquran ak sunna daf ñu sant tamit ñu góor góorlu wante ñu aar suñu bopp ci wàllu liggéey ak ci lépp lu ñuy def moo tax tey mu àndil ñu du publicité du leneen wante loo xam ne dafay innover conférence yi muy avocat bu fi ñëw spécialisé wu ci lépp loo xam ne dafa nekk ci infortunio lavoro lépp loo xam ne tamit dafa nekk ci lu jëm ci accident wu stradale ngir mu ñu mun na bàyyi ñaari kàddu wax ñu ñaanuñ ko yàlla wante si képp koo xam ne loolu dal na la nga xam naan ngay mun a doxee euh, ci italien la koy waxee su fekkee ne am na information yu leerul mu am ku fi déggul italien su suñu laajaatee ñun dinañ ko ko mun a leeral ngir après ñu mun ko bàyyi mu daal di euh, delluwaat euh, signor avvocato quindi vi lasciamo la parola così lei potrà spiegare ai nostri fratelli e sorelli anche ai nostri responsabili che sono qua dietro ehm, come vuoi procedere. Buonasera a tutti. Innanzitutto ringrazio per l'invito che ho ricevuto dall'Imam. Ho conosciuto stasera anche Omar, eh, ringrazio della parola. Eh, la presentazione che vi ha fatto spero che capiate eh, quello ovviamente che dico, anche se sarà molto semplice, senza tecnicismi. Io mi occupo di... ho uno studio legale a Bergamo, lavoro su Bergamo, Milano, Brescia e mi occupo di eh, infortuni sul lavoro, quindi una materia di attualità, coinvolge moltissimi di voi, non solo, che hanno ogni anno in ogni momento un incidente sul lavoro e che devono chiaramente eh, essere assistiti da uno studio competente che possa eh, fargli, riconoscere i propri diritti. Ci occupiamo di questo, è una materia complessa, quindi gli infortuni sul lavoro sono tutti i giorni e sono di natura diversa, ci sono degli istituti che se ne occupano e che devono essere affrontati da un professionista che se ne occupa direttamente, quindi non fatevi eh, problemi, scrupoli a, a, chiamarmi, sono disponibile praticamente esatto, sempre. Eh, grazie a Liman ho avuto questa possibilità di collaborare già in precedenza per un caso e ce ne saranno sicuramente molti altri è chiaro che eh, fin quando non ci sono e non capitano questi infortuni nessuno sa come affrontarli e, ed è corretto che ci sia uno studio che approfondisce e riesce a, far valere, totalmente i vostri diritti. Poi un'altra materia di attualità e che in Italia è abbastanza insomma, una materia di cui noi ci occupiamo e, e con frequenza sono gli incidenti stradali che sono all'ordine del giorno, occupano moltissima, la materia è molto vasta, anche qui per ottenere un risarcimento bisogna sempre passare attraverso uno studio legale, in questo caso io me ne occupo personalmente, siamo diverse persone che lo fanno e eh, per chi non è eh, diciamo così, eh, non è abituato a trattare questo tipo di materia e con eh, le competenze giuste potrebbe essere tradito anche da un risarcimento non corretto, ingiusto ed ecco perché eh, mi sembra corretto aiutare la vostra comunità, già fatto in passato, questo eh, è un mio adesso eh, me lo sono posto come primo obiettivo, voglio che eh, nella città di Brescia, Bergamo, Milano in particolare, in tutta la Lombardia, se ci sarà mai un eh, infortunio, un sinistro stradale che vi riguarda, possa essere trattato e gestito e, e, e, e risarcito in modo corretto. Potete contare su di me, vi darò tutti i recapiti per potermi eh, contattare. La cosa forse che vi riguarda più da vicino è il diritto eh, di migrazione, quindi collaboro anche con lo studio Raimondi che conoscerete, un altro studio legale. Se qualora aveste problemi di quella natura sappiate che potrete senza, problema rivolgervi a noi. Grazie per la parola che mi avete concesso, il vostro tempo, grazie a Lima e Omar, grazie a tutti voi del vostro tempo e buona serata e buona continuazione con la vostra preghiera. Ne approfittiamo anche, signor Matteo, il nome della fondazione di El Mustafa Gay radiallahu ta'ala anhu per darvi questo diploma d'onore rilasciato al signore Matteo Lari. Questo per lei, al nome della fondazione, al nome di Ussase, dei suoi fratelli e di tutta suo fratello e di tutta la sua famiglia, ma anche di tutti quelli che sono qua presenti. Ringrazio ancora tutti, eh. buona serata e buona festa. jërë ngeen jëf ñu ngi jégalu ci dog-dog yooyu xam naa dañuy dugal al oustaz bismillah kon léegi ñu dugal suñu nijaay suñu baay suñu sëriñ alxaaji Chérif Thiam mu defal ñu waxtaan ci tafsir Moustapha Thiam borom Taïba tafsir Moustapha Thiam borom alquran borom xam-xam waaye tafsir Moustapha Thiam jullit xaqan ñu jox ko 15 20 minutes mu waxtaan suñu paree ñu jox zikarkat yi ñu tàngal saal bi ba mu tàng suñu pare ñu gàmmu incha allah Mustapha Futa nee na tawasaltu ani ahmada wa cheikhi abdal ilahi mana jawahtada Mustapha Futa nee na tawasaltu bitiani ahmada wa cheikhi abdal ilahi من حج واهتدى خليفة القرم العمام الذي نباه دجى الجهل قول المنكرين ترددا وبالمصطفى سر الوجود ومتبى غورجي بنكو جماجي نينا هو البنك أصل البنك بواب من ناداه wa ashaabihi ulil makaarimi wal hulaa bihim taaba diinallahi sidqan mushar Mustafa futanena wa ashaabi asal qutbi huqalaw mana لنيلهم فضلا جسيما وشهددا يا Gor Fuuta neena ilallahi masko samani wa ahlo limali min albalwai jumuhan tabaddada mustafa futane nabibi khafaqan alqalbi ba'da tafakkurin لقد قردم العين خوفا لما بدا نجول فتنين سهرت بي ليلي ولن تلفى لي كرا أسرف شمس مامنين سهرت به ليلي ولن تلفى لي كراه وضى بقبيل الروح نوم مهجدا Mustafa Fuuta ma ngay ñaan taxawtu yaa rabbi ilaahi wa bi an tajma samlal karimal mumajjada yoo yoo góor gi neena taxawtu yaa rabbi ilaahi wa bi an tajmaha shamlal kariman mumajjada wa hufa bina alxayrati qadir lana ridan wa xawi lana shidran wa hisnan musayyada fala tusmid alhadayi rabbi wa baari mustafa fuuta nee na la anta alhakimu alfardu jabbaru soo nada دعائي دعائي لا تخب ورجانا فحقق بجاه الطاء ياسين أحمدا مزافتنين ومكن لنا سهيا يوافق سنة ودين الهدى دين الخويما ممجدا وأوراد القطب كون برسقي مان نؤدي بترتيب جمها ومفردا شيخ تيجاني قطب رباني بحر البحور سمس الإيان واو شيخ تيجاني قطب رباني baxral buxuuri ma Mustafa neena Seyxu Tijaani xutbu rabbaani baxrul buxuuri samsul xiyaani Seyxu Tijaani xutbu rabbaani baxrul buxuuri def leen ni sayxu tijaani qutbu rabbaani baharul boore samsul hiyaani waaw waaw sayxu tijaani qutbu rabbaani baharul boore samsul hiyaani mu fada fi kulli hiini dañuy faral toujours bu suñu kilifa di jël kàddu rek ñu wéyal ko suñu hymne national muy Seexu Tijaan loolu moom ngeen jéggul na rek donte ñaari minute la qutbu rabbaani bayrul boori samsul yaani Seexu Tijaan qutbu rabbaani bayrul شمس العيان نال المناه ثم تداني أسك مالا عند المناني شيخ تجاني قطب رباني بحر البهور شمس العيان ah Seexu Tijaani qutbu rabbaani qutbu rabbaani bahrul buhuuri samsul hiyaani waaw Seexu Tijaani qutbu rabbaani bahrul buhuuri samsul hiyaani المنام واو شيخ تجاني خطب الرباني بخر البخور شمس العيان جرين جف أبو العباس جزيتم خيرا وكفيتم سرا ولا لقيتم ما بقيتم ضرا alhamdulillah alhamdulillah alladi hadana li hada wa ma kunna li nahtadi lawla an hadana allah wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wa ala alihi wa asaabihi ridwanullahi taala alim ajmain wa radiyallahu an cheikhina wa wasilatina ila rabbina bil abbas ahmad ibni muhammadin saalimi attijaani wa an jamii xulafaihi ridwanullahi taala alim ajmain ixwata al iman wal islam nuhayikum bi tahiyati l islam wa aqulu lakum bi lisaani l haal assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu mbokk yi ñu ñàkk guddal wax ci làmp làkk wiñ nàmpa ñu bokk ko ñun ñëpp mu gàtta ñàkk du ñàkk doonte benn baat njëriñ génn ki gannaaw bu ñu sante yàlla mii xeyoo ak ñu màggal ko bàkk ko julli ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa ñaan julli googu yërmande googu wàcce mboolem ci xooti xeetu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam waaye di ñaan ngërmande yàlla yal ko yàlla dotti ci suñu sëriñ di suñu wasiila seydi ahmada tijaani mboom ak mboolem xalifam ya di sant yàlla ci jataay bi nii tey waaye di santalee yàlla it ci ki nga xam ne rakka ci ñun muy oustaz Abdou Sayir Gueye ci xalaatam ci li nga xam ne xalaat na ko ci jataay bii sepp ci kenn ci góori yàlla yi koo xam ne buñ ko tuddee tudd nu ñëpp muy tafsiru Moustapha sénégalais la fuuta fuuta la alhamdulillah xëy na ñu dëkkee fële ci Fuuta waaye mën naa ne na daal waxtaanee tafsiru Moustapha mooy wax mooy jataay bii dong mënuñu fee wax tafsiru Moustapha la duut ne la ñuy wax fii ci diini loolooy tafsiru Moustapha gannaaw ba ko yàlla mayee lam ko may alhamdulillah yaakaar naa képp ku dëkkee ci côté Fuuta samedi bii jàlla nga di nga dëkkee côté boobu xam nga kan mooy tafsiru Moustapha ba ko ba ci topp it samedi ba ci topp ñu waxtaanee fa góor ak yàlla ga waliyu yàlla wa muy tafsiru Balla ñoom nag ñu roote ci kenn ci kenn na mu nekk seenam naaluwaay muy Seydil Hadj Abdullahi ges kon boo waxee tafsiru Moustapha foog nga wax tafsiru Balla yàllaa leen boole ci mbokk waaye boole leen it ci benn naanu waay muy Seydil Hadji Abdoulaye nges dara safu leen woon la du lislaam dara ñuru leen woon la du taxawal diin lislaam kon mbokk yi ñu ñàkk fee jël taa gannaaw bu ñu santee yàlla sant Abdou Sayer Gueye waaye di ko santalee yàlla it ci xalaat bi xam ne daal tafsiru Moustapha tafsiru Balla ak ñu mel ni moom ñoom ci biir Fuuta seen seen taxawaay mooy taxawee diine kon lan luñ ci jàng mooy ñun ci suñu bopp ñun ci suñu bopp jéem leen a roy ndax nag ngëneel ak yàlla gi du jeex te du mës jeex lii yàlla di maye du jeex te du mës a jeex ñii jut ñu baax ñi ñu leen di jut waaye ñii faggu aw yiw it ba yàlla may leen ko ñam koy faggu kon lan luñ ci jàngee moo di ne luñ jéem a góor góorlu jéem a roy ci ñoom jéem leen ni nidu ndax yàggalee ni bu yàggee rek am loo jël ci ñoom leneen amu fi aha waxtaane nitu yàlla baax na cofeel dana tax nit ñi sopp ko waaye déedéet lii ci ëpp solo mooy roy ko ma di ci dénku sama bopp nag di leen ciy dénku xam nañ ci muy waxtaane baax na xamuñu ko waaye am na keneen ku mel ni moom nga xam ko jéem koo roy nga nga nekk ndax nag lu waay lu la say bokk xam-xam-xam yaa gën a xam sa bopp bali linsaanu ala nafsihi bashiratun ku nekk ci ñun sa seetu bopp nga boo wéeteeg sa bopp mën ngaa xam yow yaay kan kon ba tax góor ak yàlla googu ngay ñee ke la ko yàlla defal góorgóorlu mbaax ak yàlla gi du jeex te du mës a jeex bu jeexee rek ci yow la kon daal sama dénkaani ci wax gi déedéet du ma fi toog di wax xar baaxi tafsir Moustapha léedéet du ma ko def alhamdulillah la ko doon yàlla may may na ko la ko yàlla may it du ma sa jeex kon ñun nuñ jéem a roy góor suñ mag ñooñu nit ñu baax ñooñu lañ nekk ñu jëm ci nekk ndax ku topp ci yoon ku nekk ci yoon di dox boo taxut yàgg-yàgg da nga lii daal lu ñu leen ciy dénk dénku mbokk gi rafetal dëkkandoo gi xool ñu baax ñu nañ mel ñu jéem koo mel bu soobee yàlla buñ ci taxut arrêté wuñ yàgg-yàgg dañuñ yàgg salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuhu nag dagg naa wax ji ñi ngi ànd nag mboolem nee naa waa Fuuta ñëwunuñ suñu mbag Thierno Ousmane Wade seen naa ko fi Euh, alaji Umar Jaay mu nekk président ahbabu rasoul ñëw na waaye suñu jarbaat di suñu doom soxna Faati Mbuure mu nekk pareeg ci ci bi moom it ñu ngi ànd moom moom la ñëw na ak mboolem rek ay soppem ay doom ay wëllërim ñoom ñëpp ñëw nuñ kon oustaz Abdou Gueye nee naa la sa mbokki Fuuta yi wuy si nuñ la waa Fuuta boo leen génne ci jataay ci jataay bi dañu ñëw des salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakatu. jërëjëf yal na yàlla fayati yal na yàlla taxawu yàlla na yàlla aar. naa ñu jox Serigne Sidi Fall mu présenté délégation yi fi nekk ñëpp bismillah.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 Eh, gannaaw bañ leen nuyoo di jaajëfal ustaas ci guddi gu am solo gii xam naa ma ñëw nag ci ni ma ko digale ndax ku ne xam na ni Bergamo dañoo am commission scientifique musulman de Bergamo eh, mboolem borom xam-xam yi ak président daayira yi ak président association yi ñëpp bokk àndandoo nekk benn bay amal sax benn guddi boo xëy guddi seydina muhammad rasulullah sallallahu taala alayhi wa sallam Eh, ba sabab saa buñ ñu demee Sénégal di dem ci eh, suñ kilifa yi eh, mu mel ni bis boobu rek ñu jàpp ko le 20 avril waaye ñu ñëw ci délégat yi yi nga xamante ni ñoo fi teew xam naa dañuy sof rek ci sërif Baye sërif Thiam ñu ngi koy ziar bu baax mu mel ni daara yi Touba Zingoña teew nañ ci njiital Serigne Diouf jëwriñ ji ànd ak imam bi sëñ Xaadim Touré waaye e, silatu rahim teew nañ fi ku xam na ni sëriñ Birane tànk yi France la xaw a ëppe waaye ñu koy seeral nag ñi fi bàyyi e, muy ku mel ni sëriñ Omar ak sëñ Mansour sëñ Pape Ndiaye seen taxawaay ci lépp xew-xewu diine dañ ci taxaw kon sëñ Birane ñu ngi lay ziara e, waaye tamit di ziara tamit daayira bi nga xamante ni mooy daayira mustarsidina wal mustarsidaati ñoom it teew nañ fi eh, waaye tamit eh, daayira ahbaabu rasul sërif wax na ko sànq waaye tamit eh, daayira bi nga xamante ni mooy fédération Qadria Cheikh Naar Samb teew nañ fi waaye tamit daayira bi nga xamante ni mooy daayira mutahabina fillah teew nañ fi ahbaabi saydi jamil waaye tamit sillatu rahim bu seriñ biraan si waaye tamit ak eh, daayira yi ndax boo ko toppee xëy na daayira ñu fi teew bari nañu eh, daayira Baye Jatara waa kër Cheikh al Islam eh, macha allah rabbi teew nañ fi muy Baye ñas ku ne xam nañ suñ kilifa gi fi jóge bu yàggul muy Cheikh Tidiane ñas wax ju rëy jim ci waxoon muy la am solo ñoom tamit teew nañ fi teewaay ba am solo waaye tamit Eh, waa kër Thierno Abdourahmane Bari ñoom tamit teew nañ fi eh, waaye mboolem dayre yi nga xamante ñi ngi fi muy ahlu laayen libaas laay ñoom teew nañ fi eh, ak yeneen daayira yi nga xamante ne xëy na dañuy bañ mu gudd lu ci mel ni daayira bi nga xamante ni mooy tasawdu subbaan teew nañu fi waaye dayre bi nga xamante ni mooy waa fedde Cheikh Oumar teew nañ fi ak yeneen daayira yi ci des yëpp ndax mën nañ ci lim daayira yëpp eh, ñoom seex Ndaw ak ñu ngi nuyu ñëpp daal wax dëgg ndax ñoom ñëpp wax dëgg xamante nañ ndax comme ni ñu ko waxee eh, fu ñu demit jataay yi ñun ñoo fay teew kon mboolem daayira yi ñi ñu lim ak ñi ñu limul yëpp ndax dañuy bañ jël temps ba mu gudd waaye kenn ku ci nekk mën nañ jaar ci turu daayiram ak ñi fi teew ndax xamante nañu di ñaan yàlla mi nga xay moo mën a fay yal na yàlla fay leen waaye di jaajëfal nag mboolem ñi nga xay dara jaale nañ leen bis bi ñu teew fi teewaay bu rafet ñoom ñi ngi leen di nuyu waaye mboolem ko fi teew tamit di ñaan yàlla mi nga xamante ni mooy boroom ñëpp di boroom lépp kenn ku ci nekk soxla yi bari na jafe yu bari waaye nañ def tawasul ci yàlla ñaan képp ku fi teew soxla bu mu fi indi buy dem suñu borom saafara ko yàlla na ko yàlla def bi jaahi nabi sallallahu taala alayhi wa sallam xam naa di jéglu bu baax a baax aleykum salaam wa rahmatullahi taala wabarakaatu waaw jërëjëfati sëriñ Sidi Fall na yàlla fayati ñu ngi gërëm parents yi ak marraines yépp yàlla na yàlla fayante ak yéen sëriñ Baara Sow gis nañ taxawaay bi yàlla na yàlla fay yow moom dañu bokk lépp xaaji Badou Thiam euh, Pape Dabo jóge ba France nekk parrain suñu kilifa di suñu mag ñu bokk ndey ak baay yàlla na yàlla fay mu am taxawaay bu am solo ci famille bi dëgg-dëgg mënuñ ci wax yow ak yaay booy yàlla na yàlla fayante ak yéen Cheikh Ibrahim Condé di kenn ci ñun nga xamee ne ñu bokk lépp yàlla na yàlla fayante ak yow Seyda Fati Thiam jërëjëfati taxawaay bi rafet na yàlla na yàlla fay Seyda Fatou Ngom jërëjëf taxawaay bi rafet na yal yàlla fay Seyda Mati Sine nga xam ne moom ak ñi mbokkal sama yaay bu leen séenee ak yére bu mu mënti sol ak fu mu mënti nekk force dafa yegg ci suuf ne ndax ma sukkal leen wala ma raamal leen ndax seen doomu bàjjen la waaye ba léegi nga xam ne maire dox bi yombatul sax bu leen gisee force mu jéem pour wàcc ndax diggante doomu nijaay ak doomu bàjjen dëgg-dëgg yàlla na yàlla fay leen te ak yow Seyda Ndeye bi kenn ci man di jigéenu bopp yàlla na yàlla fay Seyda Khady jërëjëf yàlla yàlla fay gars yi dañ ma wax ne ma cadeau yi ma leen bëgg a jox naa leen ko jox léegi nga xam ne buñ duggee ci gàmmo gi duñu arrêté muy zikkar yi ak euh, Euh, ak waxtaan wi kon loolu lañu ñu bëgg a def di gërëm nag gërëm gu amul àpp suma yaay mbenn fay taxawaayam ci man mënuma ko wax diggante yaay la ak doom mënuñ koo defal lenn lu dul ñaanal ko yàlla yàlla yàlla guddal fan bi may la wér yàlla yàlla guddal fan bi may la wér yàlla yàlla guddal fan bi may la moom lañuy njëkk a jox trophée ndax nuñ ko gërëm nuñ ko sant loolu rek lañu man waaye di gërëm la président Aly Ngouille Ndiaye mu am tax taxawaay bu am solo ci guddi gii nii woo na ma depuis Sénégal soxnaam woo na ma ñu am cër bu mag ci man mu yónnee fi délégation bu am solo ak enveloppe bu am solo aussi yàlla yàlla fay leen ak moom lu mu bëgg yàlla na ko ko yàlla defal ci barke yonte bi sallallahu alayhi kon yaay booy bismillah asalaamaaleykum wa rahmatullah kon niñ ko waxee woon pour famille bi oustaz ak seede yu sell yi nga xam ne moom la seede lii ñoom ñoo la ko jox ngir màggal bés bi màggal la tamit voilà euh, jazaakumullah xeyran yàlla continuer lépp luñ fiy seede yàlla continuer te yàlla sax te yàlla na leen yàlla defal nga neen rabbana atina fi dunia xasana wa fi l axirati xasana wa qina adaba annar آمين يا رب العالمين جزاكم الله خيرا ñuy oo El Hadj Habib Kane ñuy oo El Hadj Habib Kane ñu oo El Hadj Habib Kane pour mu ñëw jël si moom tamit euh, diplôme waaleykum salaam wa rahmatullah voilà kon euh, yaa représenté sëñ bi muy sa nga jottali lu ñu ko nii Seydi Amadou Diallo ci turu famille bi ci turu fondation waa nee na ñu parrain à vie waaw kon euh, muy noonu incha allahu taala voilà am na beneen cadeau bu des ñu ngi leen koy andil incha allahu taala kon ñu tourné nii comme ça kan kan xaaj bi daan jëlal ñu ah non formulaire la ñu Moustapha man bëgg naa la Moustapha oh, man bëgg naa la Moustapha man bëgg naa la naa la Mustafa man bëgg naa la Mustafa man ku ci bëgg wane sa cofeel Muhammadu <laughs> Rasulullah man bëgg naa la Mustafa man ni bëgg naa la Muhammadu Rasulullah man bëgg naa rasulillahi man ne bëgg naa rasulillahi muhammadu rasulillahi man ne bëgg naa rasulillahi man bëgg naa ku sopp yonent bi defal ni sa loxo muhammadu rasulillah man ni bëgg naa rasulillah man muhammadu rasulillah man ni bëgg naa rasulillah ku si bëgg wala sa cofeel waxal njool ma rasulillah man muhammadu rasulillah man ni bëgg xayaarul alamin Serigne Bara Sow ñu ngi sàkku ci Serigne Bara Sow خلوا أول بدر خلت البدر سوخلوا خلوا والخيس حيث خلت الخيس لم ينم جمعك مصطفى من بقنا يا نغيمام di way Mustafa man ni bëgg naa la Rasulullah ku ci bëgg wax na sa cofeel waxal njoolu ma waaw ku sopp yonent bi deful ni sa Rasulullah man bëgg yaa daaru yaa tabe nabi yaa saf yàlla yaa jaraway yaa daaru yaa tabe nabi yaa saf yàlla yaa jaraway yaa jar di jar di jëm bu càmmoñ wa ndeyjoor jol màkka jazakumullah xeyran yoo Cheikh Ibrahima Konde kon Cheikh Ibrahima Konde si turu famille bi moom moo nekk ñuy oo Seyda Ndey Saar ñuy oo Seyda Ndey Saar pour mu ñëw mun a jël si diplôme bi allahumma salli wa sallim ala nabiyyin ata bil huda wal qur'an اللهم صل وسلم على نبينا الأطى بالهدى والكرم الله اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى لا إله إلا الله اللهم صل وسلم على نبي الأطاب الأضاء والكرم وخلنكو اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى لا إله إلا اللهم صل وسلم على نبي أتى بالهدى والكرم يا سيدة وعليكم السلام ورحمة الله ci turu fondation bi bu suñu pap El Hadj Moustapha Guèye radiyallahu anhu ak si njaboot gi si ndigalu ak oustaz ak njaboot gi ñoom ñoo la jox teraanga ida si tara faal bara wanni xawa wa dafa al kurubi wa jajal banni abwa wa xul bi lisani fasi la ilaha الأمور لبار النظر يلا اللهم فصل وسلم على نبي الأتى بالهدى والكرم صلاة تدوم وتبقى إلى هي من أنام وأجل الهمام ñu may Seyda mu wax ñaari kàddu ñu am incha allah waaw di wax asalaamualeykum wa rahmatullah ngi nuyu képp ku fi teew di leen gërëm di sant ñëpp eh, di bañ a guddal rekk kàddu di sant oustaz bu baax ak mbooloo mu fi ñëw yëpp wuy si tey di kontaan bu baax nag ci cër bii mu ma cërale sama diggante ak moom yàgg na booba sama doom ji am ñaar fukki at ak ñett booba juddogu sax kon lu yàgg rek dëgg la ma di ko sant di ko gërëm waa di beral gërëm nag sama nijaay tonton Birane si mi nga xam ni wax dëgg yàlla euh, lëg bu lekkee olam na ko gërëme coy ak sañu waa daayira ñu ñëw taxaw ñu wax dëgg yàlla gunge ma def une forte délégation ñëw ànd ak man di sant waa Ahlou Bayt Rasoul bu baax a baax a baax wa nag sama njaboot nag bi nga xam ne oustaz mii moo leen jàngal alxuraan Euh, ñu ay euh, doomam di di bëgg ko fonk ko ñoo yëkkati teraanga gi oustaz jox la ko di wax ne nga ñaanal leen yàlla ndax yow yaay seen nijaay ndax ku la jàngal arxuraan benn baatu arxuraan de ku ko yëkkati sa ko ba nga moqal ko man aw ma sa fay sama boroom kër amul fay ñoo ngi lay sant di la gërëm di gërëm waa daayira bi yépp nag bu ma limee daal juum te duma matal di nuyu tonton Birane rek di ko jox ñëpp rek ak suma président soxna maam Diarra Kébé ak sama ñi ma àndal ñëpp sama nawle yi ma gunge yëpp maa ngi kontaan bu baax baax a baax jërë ngeen jëf oustaz kontaan naa encore une fois jërëjëf jërëjëf kàddu yi solo euh, macha allah <laughs> voilà yàlla fay. mbasin bu ma njëkk a gàmmoo fii si Italie moom mi moom ma ko jox yàlla yàlla fay leen ak yow jërëjëfati kontaan nañu macha allah jërëjëf jërëjëf jërëjëf ñu oo Seyda Fatou Ngom ñu ngi oo Seyda Fatou Ngom ñu oo Seyda Fatou mu ñëw jël si moom tamit euh,

أوامر وقد كرم نجوم من كبير عن كبير أيوة أيوة ومن له كل الوجوه ممتثل الأوامر محمد كرم نجوم من كبير عن كبير ومن له كل الوجوه ممتثل الأوامر آه قد كرما له الوجوه من كبير يا رسول الله من له كل الوجود ممتثل الأوامر قد كرما له الوجوه من كبير عن كبير jërëjëfati kontaan nañu bu baax yàlla yàlla fay la ak yow asalaamaaleykum wa rahmatullah ñaari kàddu rek lañ bëggoon a wax kàddu yi nag kàddu ngërmande la ak sant oustaz Abdou Zahir Gueye ajaratu Fatou ak borom këram ne nañ sant nañ la gërëm nañ la ngir yàlla te yàlla rek tax tax ne li nga def nii yàlla rek moo tax nga def ko ak bëgg yonent bi sallallahu alayhi wa kaw loolu nag nee na ko jox diplôme moom it daf la bëgg a décorer décorer bi mooy lan jox na la basin waaye bëgg nañ Sidi mi nga xam ne moom moo takkee ñëpp ñëw joxal ñu la cadeau bi nga xam ne seydaa moom moo ko def incha allah والجود من كبير يا نتير يلواني ومن له كل الوجود متصل الأوابر قد كرم له الوجود من كبير العكابر ومن له كل الوجود متصل الأوامر قد كرم الكبير يا جوتر يا الوادي ومنه كل الوجوه ممتثل الأوامر jërëjëf ati vraiment kontaan nañu lool mënuñu fay mënuñu gërëm waaye mën nañu ñaan yal na yàlla sàmm te barkeel taxawu zahiran wa baatinan ci barke Yonent bi salaay salaam kado bu ëpp lii kenn mënu ko am ci àdduna jërëjëf ati sëñ Sidi Fall yow it macha allah jërëjëf ati jërëjëf ñëpp. Zeyda Mati Sine bismillah ومن له كل الوجود متصل من كبير سيدة ماتيسي سيدة ماتيسين يو سيدة ماتيسين عن كبير أيهم له كل الوجود نازل الأوامر عن كرمان له البدوم من كبير عن كبير بشرى لخان إن المنى بذا الإله زاهر وذرنا شر الأنام أهلا به يا رسول الله بشرى لخاد الملونا بذا الإله زاهر وزارنا شهر الأنام أهلا به من زاهر ومن له كل الوجوه متصل الأوامر وقد كرم له الجنوب من كبير عن كبير ومن له كل الوجود منتظر السلام عليكم ورحمة الله ñoo ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak ci di gërëm Abdou Gueye di ko ñaanal yàlla fan wu gudd ak mujj gu rafet di ko wax ne ko mboolem képp ku fi nekk di seedo seedo rek sa doom la wala sa rakk la wala sa yëb la noo ngee ñaan bu fekkente ne juum na wala moom ñun juum nañu ngeen baal ñu àqata xoolee ñu ko ñoo ngi leen koy dénk gune bu dee jëmmentu di raam yàlla mën naa tax mën na daw mën na jóg ba dox di ba tollu fa baayam tollu woon ñoo ngi leen koy dénk xëy na dañu mënewul wax mais doom li ci ñun lépp li ci ñun moo magam bay bay mag ak kumba géey ak mboolem ku fi seedu seedu sàmb congaan mi fi toog mooy suñu bay mooy suñu mag mooy suñu lépp képp ku ñu jàppal sàmba Thiongaan jàppal ñu Abdou Guèye jàppal nga ñëpp kon nag ni ñu góor góorlu ñaan moom itam góor góorgóorlu mu fexe lépp lu muy def nan ko yëg nun ay bokkam nu nekk ci ginnaawam man loolu laa koy sant toujours te di ko ko wax parce que gone wala xale bu fekkente ne mu ngi dee dox foog nga ànd ak say mbokk foog nga ànd ak say mbokk ñun képp ku fiy seedu caaren pare képp ku fiy fuuta fuuta lii sërif wax rek ci ñun nga soxee ko képp ku jógee fuuta boo fi ñëwee da nga naan seedo nga bokk kon nag seedo yëpp mooy fuuta ñoo ngi koy dénk ñëpp daal nag góorgóorlu xëy na dana mën a wax mais toujours loolu lañ koy dénku ngeen baal ñu wax ci kaddu gi nga xam ne préparé wuñ ko kaddu yi rafet na kaddu yi rafet na suñu nijaay kaddu yi rafet na jazakumullahu khairan mashallah min kabir oh, yow yow Seyda Khady Ndom ñu o Seyda Khady Ndom السامري قد كرم له الوجود بالكبير يوم الدين ومن له كل الوجود ممتثل الأوامر ومن له كل الوجود ممتثل الأوامر محمد ومن له كل الوجود ممتثل الأوامر العامرين فكله كل وجود متصل الأوامر محمد من له كل الوجود متصل الأوامر ومن له كل الوجود متصل الأوامر محمد من له كل الوجود متصل الأوامر مرسل الأوامر وكل مبتسل الأوامر والله كل الوجوه مبتسل الأوامر خد كرم خد كرم له الوجوه من كبير يا يا نتبه ومن له السلام عليكم أي asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. xam naa ni sama wax du ci bari su ma najaay fari moo ma ñaan ma sannil ko ci ay kàddu santal ko à oustaz Abdou depuis bi mu commencé di def conférence bi wala gàmmu gi à chaque fois rek amal na ko cër ci guddi gi wala ci bés bi mu ne mook soxnaam ña ngi lay sant di la gërëm di ñaan yàlla yàlla defal la jàmm may la wér may la kàttan yëg bi nga leen yëg ci à chaque fois boo defee programme dalli leen di tuddee dara wala nga cëral leen ñu ngi ñaan yàlla moo am cër yal na la cëral yàlla mën na ko yal na ko yàlla def am nañ mbégte nag sama najaay nee ne dafa mënul wax ci mbooloo wax dëgg yàlla ma ni mu wax ma ko mu ne naa ñëw sant la gërëm la xam naa ne sax kaddu yi bu doon moom la waaye nag ñu ngi lay gërëm di la sant wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu silun awamiri axad karruman كبير يونب ومن لواء كل وجوه متصل الأوامر خطر ما الوجوه Pape au nom de si turu association bi si turu fondation bi si turu oustaz si turu lu ñu bokk yëpp mbir maa ngi yaay borom si turu famille bi si lu ñu bokk lépp قد كرم له الجنود من كبير عن كبير وكل الوجوه مبتسل محمد لمن قد كرم له الجود من كبير يوم ينبه والله كل الوجوه مبتسل أوامر قد كرم له الجود من كبير يا نيوتر يا الوالي ومن نور كل وجود مبتسل الحوامر سكر له الوجود من كبير عن كبير ومن له كل الوجود مبتسل الحوامر قد كرم له الجنود min Congaan moo la ko jox muy Ousmane ñu koy wax Ndaw moo la lii ak lii ci suuf mu ne mu ngi lay ñaanal yoon jàmm moom suma chéri la waaw gën naa la nopp naa gi yàlla na yàlla fay jërëjëfati o amicale des femmes ànd booloo amicale des femmes ànd booloo donc ñu ngi leen di woo kullul wujud muntasilun xat karuma كبير الوالي ومن له كل محمد محمد أبدا كرم له الوجوه من كبير عن كبير ومن له كل الوجوه مبتسم أوائل كرم jërëjëf ñii ñooy amicale des femmes ànd booloo ñu nekk ay jigéen yoo xamee ne ëpp nañu juróomi téeméer at bu jot ñu wooma Novara wala Torino ma defal leen conférence ñu nekk samay jigéenu xol ma bëgg leen lool wax naa leen bu yàgg ne ñoom buñ ma bëggul sax man maa leen bëgg parce que dañu ànd dañu booloo dañu takkoo nangu liggéey nangu dimbali seeni borom kër sonn macha allah yal yàlla dimbali leen. ñu jóge ba Novara ñi Torino def délégation ñëw dëgg-dëgg kontaan nañ ci lool yàlla na yàlla fay leen. troisième di weeru koor ñun ñëpp ñu def délégation jógee fii Bergamo dem defal leen conférence ndogu fa ndogu bu neex sëñ Birane caalitoon na fa ñu bisiwaat yàlla na yàlla sàmm leen jërëjëf kontaan nañ bu baax. aouzu billahi mina sheytaani rajim bisimilahi rahmaani rahim asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakatu ñu ngi leen ñuy nuyu ginnaaw bi ñu uh, sante suñu borom julli ci yonentam bu tedd bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen di nuyu jigéen ñi fi toog ñëpp di leen ziyaar ak góor ñi di nuyu suñu ustaas bi yow ustaas ñun amuñu sa fay yow yaa ñu bëggal sa bopp yow yaa bëgg amicale des femmes ànd booloo yaa def sa doole def sa temps def sa yitte yëpp ci amicale des femmes ànd booloo yàlla def na ni boo la yàlla yóbboo umra sax da ngay taxaw ci kaaba ga di ñu ñaanal ñu di ko gis loolu ku doyal dara dootu la doy ñi ngi lay sant di la gërëm di la wax yàlla na la yàlla jàppale yàlla la cat seexlu ca kaw ca kanam macha allah ñuy ñëw ak suñu asaka yéene nag te yow xam nga ni ñun yéene nañ la lépp lu lépp lu ñu am rek yéene nañ la ko ñu ngi ñëw ak suñu asaka yéene mu bari mu tuuti yëpp yéene nañ la ko te yàlla na nga ko muurloo jërëjëf jërëjëf jërëjëf yàlla yàlla sàmm leen baax na kontaan nañ bu baax jërëjëfati marhaman bikum xam naa dernière bi ñu baal ma rek waa asos be muy association bi nga xamee ne moo tënk ñëpp li jógee ci ñoom donc dafay yoon ñu décorer leen président Ibrahima Mboup wala son secrétaire général président bismillah Salimata Kan Salimata Kan waaw président jërëjëfati yal na yàlla fay yal na yàlla gën leen dëgëral waaw bu dul woon ak yéen macha allah yal na yàlla fay jërëjëfati marhaban bikum acca jërëjëfati amiin yaa rabbi kon nag ñu ba taabal bi tàng ñu jox seriñ Bara ak groupe am ñu zikar suñ paree na ñu gàmmu tey maa leen di gàmm gu neex incha allah danañ wax ci yonent bi ba ñëpp kontaan bu soobee suñ borom jërëjëf Maodo jërëjëf Maodo محمد رسول

وخير ورسول جاء من يمن ودنا أيضا أصدع وعينا أبي نكت له خيزك وريخو شعره أساف من أفضل الجنات والنبت كان كيف ما مولد ورسول جاء من يمن yéen say شفاء ثواب عبادة وسعد لبدر ما موضن عمر شفاء ثواب عبادة وسعد لبدر سيد أجدف لني له عن في شفاء ثواب ثم ميمنة تنقل وسعد لبدر خليفة زوام ثم ميمنة وزاد الإكبار لكنه لم يزل يخفو مواسم أن يرجو من الله أرى ما فوضى لكن وزنه لم يزل يخفو موازمه يرجو من الله عونا غير أجلس للنيل يرجو يرجو يرجو من الله جرى ما موت ويرجو يرجو موت يرجو من الله عونا صليا يا إلهي وجزيا أبدا أنه أمدنا لجمال فما صليا يا إلهي وجزيا أبدا محمدنا المختار في الخدم واحسن دواء جرجف نجح كوريل بي مدحن قدي هاشم نجح كوريل بي tanaalu alladi tabxi min alfatxi wal xam naa di beralwaat ngërëm spécial képp koo xamee ne yaa ngi jógee Taïba wala Mogo yal na yàlla faylante ak yéen gis nañ taxawaay bi fan yi yëpp wax naa ne ëpp na weer ëpp na semaine ñoom ñoo nekk ci waañ wi ñoom ñoo nekk ci ndox mi ñoo nekk ci jii ñoo nekk ci lépp ba ci saal bi fii ñoom ñoo ko préparé kon yàlla na yàlla fay leen ak yéen di gërëm spécial Chérif Thiam yow mi nga xamee ne yaay suñu kilifa su ma jaaree ci yow nag damay mën a dëgg foofu gërëm ki nga xamee ne moom mooy Faati Mbure Thiam moom xam naa ne moom la ñu mujjee jox kado moom la ñu mujjee décoré lii ko waral mooy dafa bokk ci man tey nag bëgguma mbokkam yi mu àndal yëpp dem kon ñu ngi koy gërëm ajaa Yaasin Fall suma jigéen ñu ngi lay gërëm yàlla na yàlla fay lante ak yow gis ñu taxawaay bi yàlla na yàlla fay kon ñu jox kuréel bi ñu daal di zikkar bu ñu zikkaree ba pare ñu dokeore Fati Thiam buñ paree nag li ma leen promettre ma def ko mooy gàmmu gun allah waa ñu ne ñu daal tuuti incha allah buñ paree ñu dal tuuti وبسير كلنا بلا سقيم اهد جميعنا الصراط المستقيم وبسير كلنا بلا سقيم لك خطاب يا وتكفنا إلى ما وبيقا وبيننا وفي الأولاد يا مالك العباد والبلاد وباركا فينا وأسر أمرنا يا مسبا بخير راد السجد يا خالق الكبار وجملة الصغار أنت الباري وهب لنا سرية تديم الرحمن صانع يا قديم اليمن واليسر وغير سدد لخير ذكر وقتا بالمدد رفع كل ذي يزيد العادي المالك المكرم المتعدي فاز سيد بالقرآن يديم خير صددي فاز سعيد بالقرآن من لدي مكى بما يديم خير صددي فاز سعيد بالقرآن من لدي نجا بما يديم خير صددي فاز سعيد بالقرآن من لدي نجا بما يديم léegi nag dañuy décorer Fati Thiam mënuñu wax ci moom waaye dinañ jox Cheikh Omar Seck mu introduire ko ñu décorer ko buñ paree nag ñëpp may ma nopp ñu waxal kat mooy Seydina Muhammad Thiam sëñ Mbaye yoo Fati Thiam ah Allah recevoir famille bi mon frère macha allah alhamdulilah ñu ngi lay dellu ah, di leen di leen remercier mais di wax ci turu oustaz ak ci turu fondation bi ci ni nga xam ne moom ngeen jàppee association bi ni ko fàtti ci jàppee ba bés bi muy delloo lenge yi ñu am information boobu à travers oustaz ak ñi nga xam ne ñoom la àndal kon euh, waa fondation bi ak njaboot gi ñoom ñëpp ñu leen di ànd di leen remercier di leen sant macha allah alhamdulilah ñu jox la lii tamit euh, incha allah dina la jox micro bi kon euh, ñun ñëpp ñu ngi leen di remercier ci fondation bi. wa ahbaabu rasuulu wa ahbaabu rasuulu wa ahbaabu rasuul sallallahu alayhi wa sallam soxna Faati Caam ku baax ki lu nay way soxna faati bis bi yow lañ ko tuddee faati mburi mi ku baax la waaw waaw faati mburi mi kuy wëy kuy wut ku baax boo ñëwee ci moom nga xam ne moom la moom na te sàmm kuy wut ku yiw boo ñëwee fekk ko ci moom waaw yitte di lislaam mooy diine ji waxlam yow faati xamal yow mi na nga ni bis bi baax ki lañ ko tuddee mooy njool fuuta njool fuuta ma Moustapha jërëjëf yal na la buur bi yàlla fay jëf ju rafet ji nga jëf ci réew mi moo mata roy yonin la lambo ma Moustapha ji koy yonin bala roy saxal na diine fii ci Fuuta ñépp la wóor du wax la dul yàlla nee na du wax la dul yonin ne te alxuraan la jëfee sunna si yonin bala alustaas Abdou Guèye yëgal ne waa Hababu Rasul ñoom ñëpp gërëm nañu la borom xam-xam la borom diine la ku sell nga ku woyef nga billaay yëgal ne waa Hababu Rasul ñoom ñëpp gërëm nañu la dëgg-dëgg dafa nekk nit ku sori ci man di ku baax di dëkkandoo waaye di cousine mu nekk nit koo xamee ne boole moom mooy yitteem jigéen joo xamee ne jigéen ju mën góor la loolu nag ñeme naa ko wax parce que borom këram moo ko seede nekk jigéen ju mën a dajale ndax ku mën a takkee ahbaabu rasuul ay at te déggoo cam déggoo dara dëgg-dëgg jigéen ju baax nga yàlla na la cat seexlu yàlla na la yàlla sàmm yal na yàlla barkeel la barkeel sa dund barkeel njaboot ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam suñu xol sedd na moo tax ma ne yow la ñu mujjee dokoyre mbër mu mag ci làmb moom la ñu mujjee dugal jërëjëfati kon nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xamee ne suñu baay alxaaji Moustapha Guèye mooy borom jikko yu kawe yi moom mooy ki ñëpp gërëm mooy ki nga xamee ni ku mel ni doo ko gis moo tax Baye Moustapha Gueye ne muhammadun xayru rusuli sharwaahu naadiru huwal xarmu maaxil kufri bal wa huwa xaashiru daayira mam Astou Diankha ñu ngi leen di gërëm bay Moustapha Gueye nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy kiy jubal xeet wi mooy kiy teg nit ñi ci yoonu dëgg bay Moustapha Gueye nee na yonent bi sallallahu wasalam wa sallam képp kuy wut ay jikko yu rafet ci moom nga koy wutee mu ne ca xaaru xiraa ca la ko mbir ma ñëwal kooku moom mooy Jibril ne ko yow yay Muhammad man ki lay accompagner ans ñu ne ko bindal Baay Moustapha Gueye ne bi xiraa in qad atathu risaalatun déglu ñu ne ko fu mu jógee ndax ci jinne la ndax ci nit la Baay Moustapha Gueye ne minallaahi yàlla ñu ne ko ndax mooy yàlla bi yahud yi di woo wala bi chrétien yi di woo mu ne déedéet rabbi naasi Baye Moustapha yi mu ne kooku mooy yàlla bi nga xamee ne moo bind doomi aadama yi di seen borom mu ne bal zaaka tahiru yonent bi salaay salaam boo ko xamul mooy ki nga xamee ne dafa laab moo tax suñ maam Serigne Touba ne huwa akmalul wara xalxan wa xuluqan zahara wal mislu xattu lam yura walan yara fi chiyami Sëriñ Tuubaa mu ne ku mel ni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ci ay jikko ci jëmm mu ne du feeñ ci àddina ba yowmal qiyaamati ku mel ni moom doo ko gis ku mel ni moom jigéen dootu ko ota Muhammadul Busayri daal koy takke daldi wax ne faa iina fi xuluqin wa fi xalqin wa lam yudaanuhu fi ilmin wala karami Baay Daawuda yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax Muhammadul Busayri wax ni wa kulluhum min rasulillahi multamisun wa kulluhum min rasulillahi multamisun garq min albahri aw rashman min addiyami yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xamee ni moom la suñ borom subhanahu wa taala wax ne moom rek laa joxeñ ku dul moom ñu ma moom kenn war koo topp moo tax Baye Niass radiyallahu anhu ne Niass day du ma fekk ma dagg kenn ci sama làmmiñ mbaa ci sama xalima mbaa ci sama xol ku dul yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wamtidaaxun li siwaahu tayfu jinnin laa araani Baye Niass mu ne tagg keneen ku dul yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne loolu saddub jinne la moo tax bàyyi ne man moom laa bëgg moom laa xam xam goo xamee ne su yenent bi doom dund ma fekk ko ci jamono mu ne mbëggeel ak xam gi ma ko xam du changé dara ñu ne ko bàyyi ñas bindal ndax weddikat yi dañoo bari mu ne uhibbuhu mahabbatan wa aarifuhu maarifatan law adraktuhu hayyan wa saaxabtuhu ma zaala fi dayni shay'a kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi Muhammadul Busayri wax ne wa abyaddu yustasqal ghamaamu bi wajhihi simaalul yataama fatun lil aramili bihil hullaaku min aali haashimin fa indahu fi rahmatin wa fawaadili yonent boobu boo ko xamul Muhammadul Busayri nee na boo jógee fii nga dem ba ci armeel yi mu ne nga daal di tudd Seydina Muhammad yax yu fënax yi dañuy daal di jóg buñ jógee dañuy sant yonent bi dañ koy gërëm bay daaw dañuy julli ci moom law nasabat qadruhu ayatuhu izaman ahyasmuhu xiina yudaa daari sarimami kooku mooy salallahu alayhi wa sallam mi nga xamee ne suñ maam Cheikh Sadibou nee na moom ñooy ki nga xamee ne garab yi biñ ko seene dañ na ko anta rasulullahi mooy ki nga xamee ne xeer yi biñ ko séenee dañ yow yàlla bi moo xamee buñ ko séenee dañ daan koy yàlla yoon moo tax mu ne ko minha salaamul xajari minha sujud xajari minha infijaaru kawsara azban furatan bil yaddi kooku moom mooy yonent bi salallahu alayhi wa sallam bi nga xamee ne suñu daf ñoo wax boo bëggee ma tënkal la ko mu ne moom mooy jikko alquran aïcha nag xuluquhul quranu yonente boobu mooy ki nga xamee ne eh, bi nga xamee ne abi sufyaan dem na ca moom dal di koy eh, bëggoon yàq yonente bi sallallahu alayhi wasallam xeraq la daal di wax ne abu sufyaan ndax kii mas ngeen ko xam ci fen mu ne déet mën ngeen ko xam ci mën ngeen ko ci njaalo déedéet mën ngeen ko xam ci lu ñaaw déedéet ndax diinay baayam wala nguuru baayam la te déedéet mu ne ko haaza zamani kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xamee ne musul dog ak mbokk yonent bi mooy ki nga xamee ne day sonnee li muy dundee ab gan da koy teral yonent bi ku nekk ci dëgg mu appuyer la te yii nii jikko yi ku ci ne doo tàggoo ak sa xel mukk moo tax Muhammadul Busayri wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam euh, ñu daal di ñuy nettali ci Bukhari ñu ne bi mu jógee xaaru Hira daal di ñëw ne dof naa Aïcha wala Khadija dafa ne ko yow doo dof mukk ndax yow da ngay sonn ci gan yow dangay ngay teral gan yow da ngay nangam dangay nangam bu mu bëri kon loolu kenn ku nekk war na cee bàyyi xel ne yonent bi moom moo gën ñëpp mooy ci nga xamee ne Baye Niass nee na muy Kaab muy Hassan muy najlu rawaha muy yusuf saadi muy busayri mu ne ñoom ñépp tàgg nañ yonent bi liggéey ko ñoom nag dañ ma fee jiitu ci àddina waaye gënuñ maa xam te gënuñ maa bëgg yonent bi salaay moo tax mu ne fa kaabun jërëjëf wa hasanun wa najlu rawahatin wa yusufa wal busayru xayru qadimin law sabaqu sabqal mujalla karamatan fa layta xalilan xaaza shawalatimin kooku mooy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi nga xamee ne tagg ko képp ku ci nekk raw nga sa àddina raw nga sa àllaaxira moo tax maam Haaji Malik radiyallahu anhu wa miftaaxun misbaaxun muniirun jawaadun mustafa aynil uyuni a Aja boobu di Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam suñu maam Haaji Malik nee na boo amee problème biir kër gi boo amee problème ci liggéeyukaay ba boo amee problème ak banque bi boo amee problème ak soxna yi boo amee problème ak borom kër yi mu ne toogal di julli ci yonent bi sallallahu alayhi mooy nekk caabi bi nga xamee ne mooy tijji yëpp moo tax maam Seex Alxaaji Maalik ne wa miftaaxun misbaaxun muniirun jawaadun mustafa aynul uyuni mu ne bu fekkee ne àddina da ngaa dem ba mu lëndëm nga dem bam yàgg lépp ne kir si yow problème daal di bëri del sax julli ci yonte bi salaay salaam loolu daf lay daal di leeral sa yoon leeral la yëpp ñu ne ko kii ñu julli kanda mu ne muhammadun nuuru abdullahi shaybata haashimin abdu manaaf muhammadun nuuru abdullahi shaybata هاشم وعبد منافع سيد الحاج مالك نانا على نبي وعليه سلام ربنا دائما يخني يخشك محمد نور عبد الله شيبان هاشم وأبد المنافع مصعد مالك دينا على نبي وعليه سلام ربنا دائما سفلني جينا محمد نور عبد الله شيء فتكاشف وأبد المنافير مغزى يرون قاد على نهي إلى سلام لا إله إلا الله ay def leen ni ci yonen suma bunu aw fin wasudu saabaya loxo yi ci kaw saabaya soppay seen baabu kursi saabaya soppay seen baabu kursi saabaya ana soppay muhammadu saabaya ana soppay muhammadu saabaya ana soppay muhammadu saabaya kumu jara مخلي سما يا قدر مخلي قدر بجر مخلي سما جبل مقل مما دوسا جبل مقل مما دوسا جبل مقل مما دوسا جبل مقل سيدنا كنا بجر مخلي سما كنا بجر Sidina kunna bi jaral Lomoro saba ya Nai sangu sabba ya ki Kunna bi jaral Lomoro saba ya Jaral Sidina kunna bi jaral Lomoro saba ya Jaral يا رسول الله يا محمد وصحابه يا رسول الله يا محمد وصحابه يا رسول الله يا محمد وصحابه يا رسول الله يا محمد وصحابه يا رسول الله يا محمد وصحابه يا رسول الله يا محمد وصحابه يا رسول الله يا محمد وصحابه يا رسول الله الله يا رسول الله يا رسول الله يا رمض الله لا اله الا الله يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله Modosa Bayang Makayu Modosa Bayang Ibnu Abdullah Muhammad Ibnu Abdullah Muhammad Ibnu Abdullah Muhammad Ibnu Abdullah Muhammad Ibnu Abdullah Muhammad Ibnu Abdullah Muhammad Ibnu Abdullah Muhammad Ibnu Abdullah aywa ci doomi Abdoulaye Sy waxoon ca doomi Abdoulaye Sy ku sopp Yonent bi doomi Abdoulaye Sy waxoon ca doomi Abdoulaye ku sopp sëñ Babacar seeni loxo yi ca kaw na soppe Yonent ku bëgg Yonent loxo yi ca kaw sallallahu alayhi wa sallam na soppe Yonent ku bëgg Yonent loxo yi ca kaw sallallahu alayhi wa sallam يا متفا جرما صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم لمنا دومي عبد الله دومي عبد الله دومي عبد الله دومي عبد الله دومي عبد الله لك مجلس mooy Seydina Muhammad moom mi yàlla wax ne iza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'ayta an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja laka mu'jizatun ajabat kullal wara waa Makka yëpp daal di dugg si diine l'islam ñoom ñëpp di wax ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah sidi mursalin ajabat kullal wara ma way Aja Roqiya Dramé kooku mooy sa soppe bi Seydina Muhammad moom mi yéegoon ca Safa daal di wax ne képp ku ma topp te gëm ma suñu borom subhanahu wa taala ah, laka mu'jizatun ajalat kulla wara moom moo ñëw ne ko tabban laka alihaza da'awtana sallallahu alayhi wasallam sayyidi mursalin ajalat kulla wara ko tontu man maa lay tontu ndax yow sa kersa ak sa mbaax mënoo tontu sa wéy ah, laka mujizatun ajazat kull wara sëriñ Bara sa soppe boobu ca la yàlla waxee ne tabbat yada abi lahabin wa tabba ma aghna anhu maaluhu wa ma kasaba sayyidil mujahidina yaay ajazat kull wara képp ku yëkkati sa loxo ah. ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yàlla ko dewe dewen ana soppe yonen laka mujizatun ذات أجدت كل الورى xamul mooy yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam ak mbaaxam ñi ko gëmul ñoom ñoo koy seede laka mujizatun ajadat kull wara moo tax Baye Niass mu ne bu fekkee ne ñi gëmul yàlla la yàlla mën a dugal ajjana ci mbaax goo xamee ne bëgg nañ ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñi di wax ashhadu an la ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah laka oh, mujizatun yonente boobu sallallahu alayhi wa sallam mooy bàyyi Fatima koo koy bàyyi Zeynabu bàyyi Roqeya bàyyi Umu Kalsum sallallahu alayhi wa sallam laka mujizatun ajalat kullal wara dina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy ki nga xamee ne yàlla nee na ko bel bàyyi ma lay tontul ba gaay sabbee la ba gaay waxee ak yow ba gars yi waxee luñ la warul waxul lépp man maa la tontul ne la qul huwa allahu ahad ah. allahu samad lam yalid walam yulad walam yakun lahu kufuwan ahad laka mujizatun ajabat kulla wara sopp yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yëkkati leen seen loxo ku sopp yonent bi defal ni laka mujizatun ajabat kulla wara waaye daaw da li nga xamul yonent boobu boo jullee ci moom benn suñ borom subhanahu wa taala dafay julli ci yow fukki yoon xilaas sa waxi maam laka mujizaatun ajazat kullal wara ci moom fukki yoon suñ borom subhanahu wa taala daa julli ci yow téeméeri laka mujizaatun ajazat kullal wara ci moom téeméeri yoon suñ borom subhanahu wa taala daa julli ci yow junni yoon waa Bergamo xanaa kenn soog fi yeneen laka mujizaatun ajazat kullal wara kon ñun ñëpp ñu ànd julli ci yeneen bi معجزاتنا أجلت كل الورى ñëpp nañu wax allahumma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim yàlla daal di julli ci ñun laka mu'jizatun ajalat kull wara alaaji baara moo tax sëriñ tuuba xaadim rasul daal di ñuy wax ne ku mel ni sayyidina muhammad diñ ko gis te dootuñ ko gis ba yawmal qiyaamati ramal wara nayla fatlin musri'ina law moo tax mbokk yi Baay Ñas radiyallahu radiallahu anhu daal di wax yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bëgguma kenn gisuma kenn namuma kenn xooluma kenn ki ma jublu ta xool ko kooku may seydina muhammad laka mu'jizatun ajazat kullal wara moo tax laa ilaha illa allahu kenn ku ko wax benn yoon sa yaram dafay daal di xaram safara laa ilaha illa allahu laa ilaha illa allah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 dafa wax ne li ma wax man yonent bi te zikkar ko ak yonent yi ma jiit woon la ca gën mooy baat bi nga tudd léegi mooy laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah moo tax suñu borom subhanahu wa taala sallallahu alayhi wa sallam daal di ñu wax ne ba képp koo xamee ne man qaala laa ilaha illa allah muxlisan bil qalbi daxala al janna yont bi nee na képp ko wax laa ilaha illa allah te ba nga wax daal di sell ci sa xol mu ne yow dugg nga àjjana laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah allah ilaha illa allah laa ilaha illa allah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 kër leena dëggay dem ca pey ba gëm leena Sidi Bara amma kadaan fal de falle kadaan yable yable jamam fal na teew kattan borom ma ca gën mooy Sidi Bara amma la ilaha illallahu illallah ku gaañi sikar leena dëggay dem ca pey leena seydi baarahma maa fi njëkkoon ni kenn du ma jiitu yàlla waxul lool ah, adama fi jiitu yonneen seydi baarahma way way xabtal taxut doomi la ka bu leen tànkal bàyyi yàgg nañ fi xamuñ yàllaay Sidi Baraxama dallu karambe gaana bu ko sol naw jël buy ñaaw fu ngeen taxaw ba di ji ñaat Sidi Baraxama way na jege fees kat taxu tawat fallala julli ngeen ba waaye ku xamul yàlla tabi wayluna sidi barama kadaan folle folle kadaan yable yable jammam far na teew kattan borom ca gën mooy sidi barama way na jage fees këpp taxut a wat fallara ba teey xamoo la seydi bara xamba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 عندماتي وقرانات جميع رجال القي بتفتقد فما قدته في سرقي والقرب فدفدان إلى مكة إلا لسمي سزا ولن لا وقين يوم عيني محمدا زرى سره في أي كلي وروائي وأهل الزمان كلهم فسراقيا سوى ها من قال نهجي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 kooku moom mooy Baye Niass mi nga xamee ne watana iwa nu kisra walaw laaw na ñëpp def ni nu màggal sayduna muhammad waruma woon a saxawaay waaye yonent bi dafa mel ci man noo xam ni wallahi alazim su ma woyul sama xol bi day dagg samay rakk ñoo fi ne di tagg yonent bi te ñun ñoo aaya ndax oustaz man la may moom وتدا إيوان كسرى ولولاو آية من كما تدا البناء سيدنا محمد وخلا وتدا إيوان كسرى ولولاو نيب دفني نمجل سيدنا محمد sallallahu alayhi wa sallam jiwaaye ne xawaay watadaa iwaanu kisra walaw laaw aayatan min kama tadaa albinaaw sayduna muhammad wa uyunu lil fursi aarat falka li niiraani bi ay faaw مولد محمد الأمين مولد bi sopp na bee ci ñun moo ñu tee nelaw bayandoor yal li niiraani bi ay min waaw du ngeen def ni ci yeneen bi xanaa jaralu leen ko mawlidu kaana minhu fi taali kuf mu waay riwa baalun alayhim wa baal ji waaye ne xawaay sallallahu alayhi wa sallam fa hani an bi su ma koy way sama xol bi day naat sayduna muhammad cofeel ga da may dal ni patëj sama biir xol bi la ni përëj sopp na bee ngi ci ñun moo ñu tee nelaw dayanda jol ma kayaleen jol ma صلى الله عليه وسلم محمد الخير البرية أتى واو دينك خد الله كل الفتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خدمه جميع الأنبياء ورثني في رداك لتقياي كن سيدنا محمد وكل بيت وإن حل البديع بي يلمك يا لنجن وجوداي duuna xayral xalqi kal adami sayduna muhammad daan nañ ko waaye muhammadul mustafa al muxtaaru taha ibni abdalaay xayru xurayshin lubi lubi mi aynu naimun naimun aynu ru'yatu yowmu taxaabuni takfi zaalat al xidami min al karimi hatta wasfi al karim wallahi ila abdul karim فكنا محمد الأمين فكنا خالص الكرم أمنت من كل ما يخشى أخباي من بالكاشف الأممي ابن الكاشف الأممي سبت سنايا في ليل قلبهم وما أدري أبرخ بدا أم حسن مبتسمي ما ورع جور وما در نزيم وما إفصاح حسن لدى نطف له بفمي هم بالجمال التي محمد الأمين ñol ma kayaleen ngeen ñol ma kayaleen man mboolem dara ngay xewali yaa koolal ay waay yaay sunu wasilatu xaqan inda rahmani mustafa ñu gën tarbi ci yusufa ay waay ak neex baat ay waay nguuruk suleymaan nga mustafa yaa ko dénkaane xanaa kenn bëgg fi yonent yàlla muhammad alayhi wa sallam mustafa jërëjëf bu ne yaa taxit na am tawub cee ay waay ab ñax saxal gàncax gu bay waaw bu ne yaa tax ñu toog ci ruu yi yaa ñu dëkk ci gerte gi am xaalis ci say may jërëjëf ñu ne am na ñaari oto yoo xamee ne benn bi Ford la benn bi kiliyoo la DC 048 JZ benn EW 489 VW Ford la ñu déplacé ko pour am ñu mën a génn en tout cas yonente boobu sallallahu alayhi wa bala ñu jox Baye Moustapha bismillah moom la Ceerno Abdourahman Bari wax ni mu ne man Ceerno day ki ma bëgg kii sama soppe kii sama delluwaay ki nga xamee ne moom la ñëpp yaakaar mu ne kooku mooy seydina muhammad sallallahu alayhi wa moo tax ceerno bari ne rasulullahi taaha ya habibi malazi malja'i wala ka sanaawu ceerno ne ko bu woon ak yow yàlla du bind benn mbindeef ndax ci sa leer gi ci la yàlla bindee asamaan ci la bindee lii leer ci asamaan mu ne ci yow yonent bi Ceerno Bari mu ne yàlla ci la wàccee alquran bu tedd alquran bu xereñ boobu nga xamee ni xam ko sécurité la am ko sa kër sécurité la jàng ko sécurité la ñu jàngal la ko sécurité la nga am doom dugal ko ca sécurité la sa doom mokkal alquran yàlla xaraamal sa yaram safara kon loolu mooy sécurité ñu ne ko ceen bindal mu ne walaw laa anta maa xuliqal baraaya bi nuurika qad tazayanati samaawu na ne wa unzila fiika qur'anun karimun hakimun fihi amnun wa diyaun mu ne moo tax bu ñuy màggal juddu yonent bi comme nii mu ne ku bégul ku ne rek xoolaatal sa bopp xam foo toll ci yonent bi sallallahu alayhi mu ne ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam fu ñu ko tuddee malaaka yi dañuy ànd ak ñun di bég fu ñu tuddee yonent bi mu ne wali yi dañuy ànd ak ñun di bég fu tuddee yonent bi sallallahu alayhi mu ne asamaan ak li ko dëkkee suuf ak li ko dëkkee ñëpp dañuy bëgg ci bisub yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lana sururun ataana min ilahin mu ne mbégte boobu nag ceerno bari mu ne fi muy jógee mooy fu suñ borom subhanahu wa taala moo tax bu ñuy tàgg yonente bi bu fekkee ne ñu ngi màggal juddu yonente bi soo kontaanee rek dangay xam yow ci sa bopp ne yow nitu àjjana la nitu àjjana nga moo tax ceerno bari mu ne waxal ci tàgg yonente bi sallallahu alayhi wa lu la neex lépp lu baax loo jël rek mu ne jël ko nga tey ko ci yonent bi sallallahu alayhi day ànd ak moom pour dem mu ne ndax yonent bi amul lenn lu bon amul lenn safaan waqul li sanaihi ma shita hubbi min arrahmani yaatika namaamu te booy tagg yonent bi ceerno bari mu ne ay duusu xéewal ay ngërmande ay tagguk malaaka yi moom mooy ñëw ci yow moo tax bàyyi ñes ne istaw jabal xuddaamu itqan muajjalan lada chey bi ahaju an itqi qad taxattama kooku moom la bàyyi ñes wax ne fa barhaamu yati zairan mutawassilan wa mustashfian arjuka fi lqabri xaadira Baay Ñas mu ne kenn laa yaakaar ci biir bàmmeel kenn moo ma doy ci biir bàmmeel kenn moo may wéttali ci biir bàmmeel ñu ne ko kalla la mu ne Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Baay Yuusu bismillah ñu tàggaat yonente bi bég yow suñu lépp nga suñu baay nga suñu goro nga suñu lépp nga yàlla yàlla guddal sa fan tamee la wér yal na yàlla yàggal la fi ci barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bismillah waaw kuy ñaan ca ñaano waaw ñaano ñaano ci barke Mustafa buur yàlla du la may kuy jaari yàlla feneen doo gis fa yàllaw waaw muhammadu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam muhammadu rasulillahi muhammadu rasulillahi nabi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 di maqaama waaye ku sopp yonent bi defal nii ñu màggal ko jar na ko de natub julit day yokki maqaamam ñaawteef keroog bisub xiyaama yàlla xarit ba lañ musibaal mbaa rajaal te muy ku baal li yàlla jox ba ci ma xaamaam mu ne su ko jëf nattu lañ koy xayma bur yàlla bala laa wolu ba jox la mbir ya muñ yenam ba aw ca tànki bari na muhammadu rasulillah muhammadu rasulillah natto di kerkeraani lawliya ku weddi ko xayrul anbiya mas nan ko génne mu dembe mejeraan ñu koy sànni doj ca naan kii day jabaraan noonu yaa ngi ko génne ne gi makka ngir bañ diine diini rabbi la dem Madina Mustafa fanaan na ci fanaan ci ay doj ànd ak Ababakar lu nekk muy daj fab nañ ko tabal ko ci bii sarwa jox nañ ko tooke ci bu ko doy kéemaan bisub keroog la yàlla wàcce saaru naasi ak falaxi ngir moccee ko xayru naasi bisub keroog la yàlla daaneel kéefar yëkkati lislaam loolu doy na tiitër salli ala muhammado سيدنا محمد صلي على محمد سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا محمد صل على محمد سيدنا محمد asalaamaaleykum ñetti sàll yàlla ñu julli ci Moustapha nii rek ngeen di def ku ko def yàlla sa loxo bu metteet salli ala Muhammad sayyidina Muhammad allahumma salli ala sayyidina Muhammad we need سيدنا محمد علي مصطفى اللهم صل على على سيدنا محمد صل إلهي بالمناجاة وابدا أخنا يدي أنهاتي دل علي العلماء والأولياء من لا يزال خوتي وأولياء خسدتي فاغت قشائد الكرام ولتخوض عبرا خير المرام هديتي مخجلة كل ملك كان مناشا وأخزاب ملك ما توجه نصر الله ليب لا إله إلا الله استغفر لنا عمرنا سهل لنا بدنا وهب لنا رشدا والتوفيق يا الله ودمرا كل أخداع تدير بنا قبل الوصول لنا يا الله يا الله يا من على كل شيء قادر وعلى أرش العزيم استوى بالقهر يا الله محمد مسكين لخيار خايدنا li jannatil xuldi yawma nasri allah alli salli wa sallim daayiman abadan wa man xafu li yawmi dini allah waab lana nuurun ala nuurayni waliyaab sahadata daarayni sidina wa mawlana wa wasilatina ilayka ya xaribu ya mujibu subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun alal mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiina noo ngi jéglu bu baax waaw kii sama xarit la yow dama laa war na jàngal bët set xam nga nit bu la joxee soxna maa war na ñëw teg seesi ransale bag yi séddale yëf ndax mook sama soxna ñoo bokk lépp ndax kër booy juram ak sama soxna ñoo sama soxna cey jamono seen kër lañ daan wuyoo téléphone li tax nag teelu maa ñëw moom dafa demoon umra rek ma jëli woon ko tombeeg muy anniversaire am ma kontaan ci moom nag doon jëndaloon ko benn cadeau doon ko ko féetale ci kër gi tey waaw may soññu góor ñëpp nag ñu ko def ni man waaw dama bëgg ci moom barki sëriñ Bamba dafa baax lool yem ci samay loxo jóge ci yonantu ba indi nag leer ma ne ko nag leer gi foog ma feetal la yow waaye maa ngi jégalu guddee gi baara nii nag baara ku baax a ngi gis nga kii ku baax a ngi nii dama ni dama ni sëriñ Diouf baara nan wutub buum yeew ko bañ ba la ko nangu ci noonu ndax njariñam dafa bari waaye yàlla na yàlla guddal sa fan waaye yow ñu ngi lay félicité parce que dafa mel ni murit yépp ba ci tàmbalee ko ci xalifa général ba ci moom mii da moom nga tuddee fii maanaa tey dafa tombe xew yu bari waaye kon taalibe murit yi ñooy fees yi ñu ngi siyaare sëñ Nabi Gaaj mii toog te dina jël kàddu sëñ Birane si suñu xarit di siyaare soxna yeeg ñëpp di ñaan yow nii nga mën a mel yow mënoo mel nenn du du nii xoolal nii nga mën a mel ndax ku xam sa jur xam fa nga bokk xam ni lii rek nga mën a mel yal na yàlla guddal sa fan yal na yàlla guddal sa fan jaw bég nañ lool sama xarit yi kontaan naa nag jërë ngeen jëf bég naa dañoo joŋee léegi nag deux minutes rek ñu ñaan incha allahu taala maa ngi jégalu ci toogaay bu yàgg bi deux minutes ñu ñaan bu soobee yàlla dañuy dañuy décorer muy njaay jàpp na ci bis bi suma xarit la suma xarit la soxnaam suma xarit la mu am lu ñu liyee lu bari loo xamee ne du politique waaye mbokk la ndax deret la mu nekk nit ku baax ma xam njabootam bu baax yàlla nañu ko yàlla sàmmal ma ma war ko décorer nag ci turu Mayata yàlla na ñu ko yàlla fayal suñu paree dañ lay jox nga zikkar barkeelu ñu jox Oustaz bi Gaaj mu wax ci turu daara ji ñu ñaan te tasaaroo ana Aminata bismillah allah waaw yal na ñu ko yàlla fayal yal na ñu ko yàlla gën a dëgëral yal na ñu ko yàlla sàmmal li mu bëgg yal na ko yàlla defal ndax njëriñ la man moom amal na ma njariñ te nit njëriñ lañ koy doye kon yal na yàlla fay ko taxaw ko eh, yow Mayeta Aminata ak ñi ko toogal fii ñëpp rafet na rafet na ndax eh, da di jël seen alal di ko def ci turu Aly Ngouille dawal seen i essence ci turu Aly Ngouille yàq seen temps ci turu Aly Ngouille loolu bëgg ak mbokk ak jàppale nit moo ko waral yàlla dina leen ko fay ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam te incha allah dinañ ci dox dinañ ci wax bu soobee yàlla jërë ngeen def kontaan nañ bu baax. salaamaaleykum euh, mbooloo mi di nuyoo rek ci turu suñu kilifa El Hadj Aly Ngouille Ndiaye di jottaliwaat cant ak ngërëm ci oustaz di remercier aussi délégation bi nga ànd nañ ñëw fii ñu commencé ko ci ñoom Pape Niang Aminata Ndiaye ànd ak borom këram ah suñu kilifa it di Samba waaw nga xam ne euh, wax dëgg yàlla am ba di ñëw lépp dafa tegu ci moom ñu ñëw fekk ko fii mu bàyyi yitteem ñëw ànd ak ñun ci lii kon donc moom it mënuñ koo fay di gërëmit it euh, Matar Matar si la waaw di ko gërëm ñoom Mansour Mbeng ñoom ñëpp ñi ngi ci délégation bi ñëw nag teew ci fekkee mbiram oustaz oustaz nag mënuñ koo fay ndax eh, yàlla dafa def ne dafa am cofeel bu rëy ñu am ko ci moom te eh, deret boole ñoog moom lépp boole ñoog moom ak diine di muy woote kon donc moom i taxawaayam yàlla na ko yàlla dëgëral gën koo sàmm sàmm njabootam ndax lii moom muy def eh, defalu ko boppam mbooloo mi la ko defal askan wi la ko defal diine la ko defal ndax réew mi toll na foo xam ne nii surtout nag ci diaspora bii ñu nekk nga woote fi xewu diine jël sa temps di ko def ci diine yombul kon képp ku yàlla may nga mën a taxaw di woote lu mel nii ci diggante bi ci période bi ku yàlla baaxal rek moo ko man kon donc yàlla na yàlla gën koo dëgëral gën koo taxawal digganteem ak aalim yi nag moom euh, bu ma ci naree wax dañ fiy fanaan ndax li leen boole dafa bari moom wax na ko ci biiri wax soxnaam it ak soxnay aali nguy doonu ànd nekk guddeeg bëccëg kon donc du hasard tey mu xewla lu mel nii ñu ñëw teew si fi di remercier ñëpp nag di jaajëfal ñëpp di wax na it bés bu tàll nii suñ ci tollee ñaan na it ñu ñaan yàlla suñu Sénégal gee nga xam ne dañoo jublu ci ay mbir yàlla def ci ndox mu sedd ba lépp li nga xam ne yàlla sopp na ko rek yàlla def ko te xam ne nag c'est le Sénégal que le meilleur bu doon suñu saako nag ñu gañe moom dañ koy wax waaye nag que le meilleur gagne ndax victoire du jógee mukk Sénégal kon donc di jaajëfal ñëpp di wax na rek euh, asalaamaaleykum wa rahmatullah di wax rek euh, sëñ bi mu sànni ci kàddu jërëjëf sax macha allah bu baax jërëjëfati yàlla yàlla fay. nan sànnee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 nan sànni àdduna mi nuy dox di teq ka dog te sàkku yàlla lu dul wax ji dafay tilimal alal ji ñuy dajale kay kër këree ka baril day tax sunuy ndono naa yi gaaya bëgg alal ay naar yi góor ak ki soxnaa ki alal mayewul ngërëm fa yàlla ndekoon kay am ngërëm di moril ab xol bu sell bu set liyey la fay maye ndam bisub la yooba nde duy soxna ki taaxa ki mol nun gaa lay dundu nan jóg léegi sàkku yóbbal sun bokk yaa ngi fi sëgi naa ku nuy saraxal duñ dégg duñ gis te am ay gët du tax nit a gis kiy gis ta doo waaru koo ke kay gëtam ya kër yaa ngi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 te taxawul dana ca dem nda yàlla li lii ndogalam te kenn du di ndogalam ajjana ak toppa ca jëm sawara ak moye ca jëm yi yaari barab foo ca jëm dalal di soo bu am ngërëm ajjana ak topp ca jëm sawara ak moye ca jëm yi yaari barab foo ca jëm dalal di soo bu am ngërëm keroog ba yónneen ba ne mele saxaaba yëpp ne te sax mbay Babacar Sadiqa jóg wama muhammadun la wax boo xalamee gën ji mbindeef bisam ba tax na ma ne giif ak xulafaawu ya ko yuuxoo nga xam ne àddina du sax keroog ba yonnen ba ne meles sahaba yépp na te sax Abakar Sadiqa jóg wama muhammadun la wax ñu ngi jégalu bu baax amoon nañu yéene ji bu baax a baax waaye rek xam naa lu dul doy rek nu mu toll doy te waxtu wee ko mayewul waaye am nañ mbégte bu baax a baax teew gi rek bi bégalan nañ bu baax a baax yow si loolu loolu luñ lu ñu wóor la moo ñu ñëwal si loolu lu ñu xam la lu ñu xam la géey yaaram moo tax di la ñaanal bu baax gudd fan ak wér la ñaanal tey sir gaan nake taw feex rek barkeb Seydina Amane barke Seexul Xaddim maa ngi jox Oustaz Nabi kàddu ñu ñaanaale ñu tasaaroo incha allah ba déwén may ñaan fi nekk bérébu bérébu yàlla la kenn ku nekk lu mu am na ko andi fii ci taabal bi ñu bàyyi ko ci zaawiya bi lillahi wa li rasulihi ndax béréb bi dafa soxla ay liggéey ñu ngi koy dajaleel xaalis ku nekk na ci def lu mu mënta yàlla tax azka waaw wa ala xamari min nurihi waaw على صلاة صلاة وتسليم تسليم على خمر من نوره ليل من نوره ليل ونلنا من النار خليف بنا من نوره ليل jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf ci kooku ngeen nekkoon day koo xam ne mooy Habibullahi mooy ki nga xam ne Serigne Touba nee na nitu yàlla yi koy tëgg yëpp dañoo dem ba mu yàgg dañoo gërëm ci kan mooy darajaayu yonent bi moo tax mu ne maqaamaatu xayril xalqi an xayri rabbihi muxayabatun fa taqra suuratu najmi mu demam yàgg mu ne fa kayfa yim fa kayfa yamdahu xalqun wa xaaliqoo ajrimtilaahum loo fi muxkumi suuri nee na koo xam ne kii nu koy mindeef di ko taggee te yàlla ku yàlla tagg ba àggeen nu lay mindeef di taggee moo tax bay xalifa bi mu koy melal daf na bii sawara rahmaanu sóoratana wa laysa yuxriqu wasful Moustapha al Ghali la mu wax foofu nee xoolal doomu aadama miim aram dellu miim dell nee na yàlla ci melaw yonent bi alayhi salaatu salaam la melaw bindee fi doomu aadama Muhammad boo ko xoolee miim la mooy suñ bopp bi aram gi mooy lii geneen miim gaa ngi nii del gi mooy ñaari tànk yi kon ñi ngi sant bu baax a baax ci guddi gi nga xam ne wax dëgg yàlla gudd gu am solo la te itim al ustaas wane na ne ci jataay bi ne guddi gi guddeeg jullit yépp la waaye maa ngi wax ci turu daari Touba Zingoña ci mbégti mi nga xam ne tey am nañ ko ci al ustaas Abdou Sayir Guèye ci bés bi nga xam ne da ko bokk na ci ñim ko tuddee muy El Hadj Baara Sow te alaaji Baara Sow nag day jëmm joo xam ne ci daara yi Touba Zingoña ku ko tuddee daal rek mel ni nga tuddee nga ko waa daara ji yëpp kon loolu ñu ngi ko ci sant bu baax a baax a baax a baax ci taxawaayam waaye tim di sant oustaz bu baax ci taxawaayam ñoom ñaar dañoo am melokaan woo xam ne dañ ko yor mooy seen lépp maanaam dañuy dox ci waxtasimo bi ablillahi jamen wala tafarraqo te loola tim loolu lañ gis ci biir Bergamo ndax jotaay bi ku ko xool xam ne tey même oustaz ni mu waxee defee waxtaan wi dangay gis ne kër gu nekk laal na ci te loolu rek mooy li nga xam ne moom la yàlla bëgg ndax inna diina indalaay al islam kon xam naa rek ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di wax ñi ngi ñaan yàlla ñi fekke kay ateet ci barke bi yonente bi alayhi salaatu wasalaam di sant bokk julli di fi teew yëpp wa ma zalika ala laahi bi aziim wasalaamu aleykum wa rahmatullah joxal waa jërë ngeen jëf léegi moom nañ teewlu ñu ñaan nañ teewlu ñu ñaan nañ teewlu ñu ñaan nañ teewlu ñu ñaan baa ñu leb ko baa ñu leb ko nañ teewlu ñu ñaan waaw nu bokk jàng fatiha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 اللهم إنا نسألك بما ورد حجب جلالك من سبحات وجهك التي لو ظهر للوجود لتدقدق الوجود وانحرق وصار المرض العدمي نسألك بتلك السبحات وجلالتها وعظمتها أن تصلي وتسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد salaatan laa tad'u lanaa bihaa danban illaa gafartahu wala xaajatan min xawaaiji dunya wal aaxirati illaa qadaytahu wala maradan illaa shafaytahu bi rahmatika yaa arhamar raahimiin amiin bi xaqi wa bi xurmati allahumma salli ala sayyidina muhammadin al-faatixi limaa ughliq wal xaatimi limaa sabaqa naasiri al-xaqqi bil-xaqqi wal haadi ilaa siraatika al-mustaqiim wa ala aalihi xaqqa qadrihi wa miqdaarihi al-aziim allahuma ya muhawil al axwaali xawil xaalana ila axsani al axwaali bi xawlika wa quwatika ya aziz al mutaal allahuma ya muhawil al axwaali xawil xaalana ila axsani al axwaali bi xawlika wa quwatika ya aziz al mutaal allahuma ya muhawil al axwaali xawil xaalana ila axsani al axwaali bi xawlika wa quwatika ya aziz al mutaal subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifuuna wa salaamun ala al mursaliina walhamdulillahi rabbil aalamiin yal na yàlla fay ñëpp jërë ngeen jëfati yal na yàlla fay ñëpp yal na yàlla fay ñëpp yal na yàlla fay ñëpp